wasalaatu wasalaamu ala mabuusil hidayati wa rahma naasiril xaqi wa naasiqi zulma munqizil bashariyati min baraafinil wayli wal gumma allazi balaga risalata wa adda al amaanata wa nasaxa al umma wa tarakaha ala mahajati al baydaa layluha kan nahaariha laa yaziigu anha ila halikun wa ala alihi wa ashaabihi gurri al muhajjalin wa shummi al mubajjalin مشاهدونا الكرام ومتابعينا عبر تلفزتكم المفضلة تلفزيون فيوتشر ميديا نحييكم بالتحية الإسلامية ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem koo xam ni yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias nuyu leen waaye itam ziar leen ndokkeel leen ci bis bu tedd bu barkeel bile te mooy bisu aljuma mbokki mi ngi noonu ñu ngi ciy nuyu mboolem koo xam ni yaa ngi jàkkaarloo ak nun ziar leen ñaanal leen yàlla may nu fekke ko aljuma jii di ñëw kenn bañ a manqué ci daraje Seydina Muhammad ñaanal ñi tawat nekk ci hôpitaux yi yàlla saafara leen ñi tawat nekk ci biir kër yi ak ñu koy doxaale yal yàlla saafara leen nuyu mboolem xalif généraux yi ne ci biir réew ñaanal leen yàlla ñaanal Sayid Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum xalif général des Tidiane nuyu ko ziar ko nuyu njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick gépp nuyu Serigne Abdoul Aziz Al Amin ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér Serigne Babacar Ibn Alhaji Mansour Serigne Mbaye Mansour nu ngi koy nuyu di ko ziar nuyu Serigne Maodo si mu Cheikhul Hadji Abdoul Aziz Dabakh sunu Serigne nuyu ko ziar ko Serigne Babacar Abdoul Aziz Serigne Mansour Abdoul Aziz Serigne Pape Malick Sy nu ngi koy nuyu baax a baax Serigne Sidi Ahmed si ak njabootu Cheikhul Hadji Malick gépp ñaanal leen yal yàlla yokku leen dëgëral Sayid Sidi Mouhamadul Muxtaar Mbacke nu ngi koy nuyu di ko ziar xalif général des Mourides moom itam ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ak njabootu Cheikhul Xadim gépp radiallahu anhu nuyu ko ziar ko nuyu sëriñ Muntaxa nuyu ko baax a baax ziar ko Mbàkke Balla sëriñ Basiru Abdul Xaadir sëriñ Galas Kaltu mu sëriñ Baara mu sëriñ Fallu nu ngi koy nuyu di ko ziar sëriñ Dan Mbàkke mu sëriñ Moodu sa Jeng nu ngi koy nuyu baax sëriñ Abdul Karim Mbàkke borom maqaarimal axlaax moom itam nu ngi koy nuyu di ko ziar nuyu leen ñoom ñëpp ziar leen ñaanal leen yal yàlla yokk leen dëgëral ci darajey sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuy baax a baax sëriñ Muniru Njegéen ca Thiès moom itam sëriñ As Njegéen ak njabootu maam Ahmed Baro Njegéen ñëpp ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax nuyu sëriñ Cheikh Tidiane Seck ca Cene ba ziyaar ko ndokkeel ko sëriñ As Seck borom digal sëriñ Góora Seck suñu soppe yooyu la nu ngi leen ziyaar suñu bay Alxaaji Taala Siise ca cene ba nu ngi koy nuyu di ko ziar nuyu bu baax a baax sëriñ euh, Cheikh Ahmad Tidiane Niass ca Kaolack euh, sëriñ Ibrahima Niass ca kaw Kaolack moom itam sëriñ Habib Ndiaye ca Bousra ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokk leen dëgëral wéral ci darajey Sidina Muhammad ñëw fii nuyu Chérif Abdoulaye Thiaw Laay euh, ak njabootu maam Limaamu Laay gépp nu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraji sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maam bu kunta ca Njaasaan nu ngi koy nuyu ziar ko maam Alxaaji Abdoulaye Saw ca Dagana nu ngi nuyu njabootam gépp ziar leen ñoom itam Euh, yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yi Seydina Mouhamed sëriñ Moustapha Saw sëriñ Makhtar Saw ca Dagana nu ngi leen di ziyaara bu baax a baax nuyu sama xarit bi sant Cissé dëkk Dagana moom itam ziyaar leen ñoom itam yal yàlla yokk leen dëgëral di nuyu leen baax a baax ziyaar leen ci daraja yi Seydina Mouhamed euh, mbokk yi incha allahu taala ñaanal boroom réew mi président moom itam nuyu ko jaar ko ak euh, gan yu tedd yi ne ci biir réew mi yëpp ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ñaan réew mi yal na ci yàlla dolli jàmm dolli fi xéewal waaye itam dolli fi teraanga nuyu euh, sunu kilifa sunu patron euh, alhaaji Youssou Ndour ak Mamadou Ibra Kane nu ngi koy nuyu Birane alhaaji Njaga Ndour ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ak kilifa yi nekk seen ginnaaw yëpp yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mi ngi yàlla na yàlla dolli bëggloo boppam yàlla dolli ñoo xiir ci boppam ndax yàlla bu la bëggalee boppam rek am lu mu defar ci yow la yàllay defar ca yow la ca njëkk mooy sa ruux la yàllay tàggat ba noppi ginnaaw ba nga tàggatee sa ruux ndax ruux yaa koy defaral sa bopp ndax ruux mi ngay dégg mu nekk ci yow bis bu taqalikoog yow nu gas ba mu xóot suul la ndax la koy tudd mu gàtt noonu adduna la moom ruux waaw moom ruux li nga koy tudd mu gàtt noonu adduna la kon ruux moomu lu jar a xel la waaye itam moom ruux euh, li doomu aadama yi dundee jëmmi doomu aadama dafa mu soxla mooy ne war naa nelaw pour noppalu jëmmi doomu aadama war naa war naa sangu pour set war naa laab moom jëmmi doomu aadama waaye war ngaa xool li ngay lekk moom jëmmi doomu aadama loolu mooy defar sa jëmm waaye itam dundal sa jëmm waaye dafa am leneen loo xam ni mooy dundal ruux ruux li koy dundal mbokk yi du lekk ruux li koy dundal mooy di saxoo kalimatu laa ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lay dundal ruux mooy bàyyi xel yàlla lay dundal ruux mooy di julli di jaamu yàlla di tagg sayyidina muhammad toog fa ñuy taggee rasulullah yi xeet yooyu xeet yooyu ci xeetu wàllu jaamu yàlla yi mooy dundal ruux ruux nag wax naa la ni la ah, ñoom mutasawwifuna yi ba na ko vérifier xool ah, nga xam ni mutasawwif yi ñoom bàyyi nañu xel yàlla jaamu yàlla bëgg yàlla gis nga yàlla julli ji ngay julli te yëgoo ci borom bi subhanahu wa taala yàlla sol soxlawul ndax julli ji ngay julli woor gi ngay woor di génne azaka nekk ci lu baax di def lu baax sax saxli ci lu baax yokkul ci nguuru yàlla dara waaw waaye itam la ca yàlla soxla mooy boo ne allahu akbar yéene googu nga yéene ak yëg googu nga yëg borom bi subhanahu wa taala yàlla loolu la ca soxla heure bi jot nga bàyyi la nga jàppoon nga dégg noddukat ba allahu akbar allahu akbar munisi bi bàyyi la muy def journaliste yi bàyyi la muy bind kay liggéey bàyyi fóotkat ba bàyyi kay togg bàyyi ñépp bàyyi ndax dégg na nodd mooy yàllaa gën a màgg lu mu mën a doon lu waaw lu mu mën a doon mooy ak lu mën a def rek nga bàyyi ko parce que kii la ngay def yàllaa ko gën a màgg noddukat ba nodd na bàyyi nga la ngay def yaa ngay waajal jug nga jàpp ji nga taxawal nga teg nga sa reer teg nga sa sijaada jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala boo mënee dem nga jàkka ja am na ñoo xam ne seen biir néeg la ñuy tëju ñoom dong kenn ci néeg ba kon am na koy waxal yow dong sa mbir néeg nga toog sa der de kàbbar ne allahu akbar di dem ak a ñëw am looy wax jàngal quran di dem ak a ñëw toog am koy waxal kon ka ngay waxal ku yow yëg nga ni am na lu do sa digganteeg moom waa lay tax koo gi gën a gaaw nag mooy dangay ngay defal sa ruux ruux ga nag la koy defar pour ruux ba ñu tiir ndax ruux ba muy ñëw ci doomu aadama euh, dafa ñëwoon moom ruux leer ga mu ànd àndaale woon leer la àndal c'est ci moom ruux na xol ñëwee woon ci euh, xol ba muy ñëw euh, nga xam ni euh, ñeewanteeg borom bi subhanahu wa taala ga mu indaale woon leer ga mu indaale woon waaye lay tax xol bon xol ñuul fii nga koy liggéeyee waaye lay tax sa ruux yàq ko fii nga koy liggéeyee waaw fii nga koy liggéeyee waa ruux googu nag nga xam ni ma ngay commencé dund moo tax mën a soy fu ni ñoom nee nañu ruux fi mu nekk ci doomu aadama ñoom ñu ni ruux dafa transparent waaw ñoom ñoom lijjanti nañu ba ni ruux dafa transparent waaye itam am na ci ñoo xam ne tàggat dañ seen bakkan tàggat seen ruux ba saa yu ñu bëggee dem dem am na ñoo xam ni saa yu ñu bëggee dee dee maa ngi la koy wax bàyyil xel ni gaay yàlla am na ci gaayam yi ñoo xam ni bu la neexee dee yàlla am na ci gaayam yi maa la ko wax am na ñoo xam ni bu seen heure jotee ñu ni yàlla euh, dafa am na ñuy àggale yàlla bàyyi leen fi am na ci gaayu yàlla yi am na ci gaayu yàlla yi waaw waaye ñun nit simple nag xamuñu kañ la ñuy dee xamuñu ban heure la xamuñu ban bés la kon boog nañu defar suñu rox gaaw bàyyi xel yàlla gaaw waaye itam la gën a neex nag mooy nga jël sa xol bi jox ko Seydina Muhammad problème baa ngoog jëlal sa xol bi nga jox ko rasulullah gi waaw bu ko defee nag bala nga xam ne moom bëgg ko moo wóor nga am ñetti fan ci biir bàmmeel moo tax safara mi lakk nit ñi moom safara nee na nee na nee na nee na euh, ki mu gën a bëgg ci li yàlla bind lépp mooy Seydina Muhammad waaw safara rasulullah doo ko ñor safara Seydina Muhammad rek la bëgg waaw man nee na ko bu la dara naqari ko yow daal ku la bañ ma lakk waaye ku la bëgg nag yaramam xaraam na safara xaraamun alayhi naaru xalbu ahabahu waaw moo tax ruux euh, borom xam-xam yi nee nañu euh, arruuxu inda al ulamaai euh, suluku xabla kulli cheyin waaw taxtadi irjaa ruuxi ila asliha waaw ñu ni ruux ñi borom xam-xam yi la ñuy bëgg ci doomu aadama mooy njëkk benn mbir avant benn avant dara mooy doomu aadama ñu fexe womat la roy loola tàggat la ba sa ruux baax nga xam ni da ngay dellu ruux ci cosaanam waaw irja irja ruuxi ila asliha waaw delloo ko ci cosaanam wa ila kamaliha delloo ko ci matam moom ruux na mu dikkee woon waa mat gan mu ni min al maarifati xaalisatan billahi ci xam nga mu xamoon borom bi subhanahu wa taala waaye ruux buy dellu ñu fexe na mu sellee ba muy ñëw mu gën a sell sell selluwaat noonu ndax ñoom ruux am na fa ñu ne woon waaw am na ñoo xamante fii ci àdduna ña nga xamante woon ca aalimul arwaax waaye am na ñoo xam ne réerante woon nañu fii ña nga réerante woon ca aalimul arwaax xamante wuñu woon di nga dek de bokk ak nit benn immeuble du ngeen mës a gisante waaw fii ci Dakar am na fi du ngeen mës a gisante waaw waaw wala du ngeen xamante saa ngeen rombante ci escalier yi ku ne dem sa yoon bonjour bonjour xoolal loolu te bokk benn te muy sa dëkkandoo looloo fi am fii rombante sa dëkkandoo ci escalier yi xamante woog moom mbàyyi ab luyaa da ngay luwee am du dem ci benn koñ dem ci benn immeuble dëkk fa mais ñi nga bokkal immeuble bi say dëkkandoo lañu demal fëgg sone kër gu nga sone salaamaaleykum man kat gan laa gu ne yow ci immeuble bi maa nga dëkk un mbaa deux mbaa sept mbaa huitième dama ñëw nuyu leen diw laa sant sant wi naka mu ne la mbay la kenn la faal la kenn la jóob la ngeen nuyonte waaw ngeen nuyonte xamante ndax ak lu mën a xew say njëkkandoo yi njëkk ñëw soo mënul koñ koñ bi kër gu ne nga dem fa ñi xamante woon fii ña nga xamante woon ci aami arwaax al arwaaxu junudun mujannada mooy bi yàlla dajalee ruux yëpp ci benn lël <laughs> moo moo tax darajay rasulullahi ak gëdd bi yàlla jox sayyidina Muhammad ak fi yàlla teg rasulullahi fa nga koy xamee dëgg mooy mooy mooy mooy ba ñu nekkee fële al arwaaxu fa ma taarafa minha italaf wa ma tanakara minha ixtalaf wa minha itilafu almuridina bil iradati walmuhibina bilmahabati walmusaqina bilshawqi walaachiqina bilishqi walmustanisina bil unsi walmutawahidina بالتوحيد والمتعبدين بالعبادة والأولياء بالولاية والأنبياء بالنبوة والمرسلين بالرسالة فكل جنس yastanisu bi jinsihi wa yalhaqu mimman yalihi fi maqamihi wa min huna tafhamu maana xawli cheikhi zaruq al ictiqaadu aslu kulli xayri wa qaala al qusayri radiallahu anhu al ictiqaadu wilayatun waaw gaar bu nit mën a am yàlla ngi la ko joxe woon fële moo tax yenn saay am ku nu fal ci àdduna am ñu lànk men noonu wax ak yàlla nit am teraanga nga ni maa ko jiitu fii pourquoi mu may ëppale mais waxal ak borom bi subhanahu wa taala kii li mu am ki ko ko jox lu kenn ku dul yàlla teraanga bi ko yàlla defal kenn joxu ko ko ku yàlla man kat maa ko njëkk fii waaye li ma ko fi njëkkee mooma mooma jiitu mais loolu yàlla ku ko defal yàlla yokku nit waxal ak borom bi nit lu mu am yàlla moo ko ko jox si na àllu nee na nit boo nekkee cim réew nag lu ne nga yëkkati ko fu ne dem fa coono gu ne nga daj ko sa wërsëg mel ni sa wërsëg tëjuwul mais mën naa am sa wërsëg a newul foofu xawlu si naa leen wax nee na nit bu nekkee ci dëkk am xat foofu wala moom mu xat ci dëkk ba nee na laxasal nga dem farxal ndax fa ardullahi waasiatul qada nee na suuf yàlla gi dafa yaatu génnal demal beneen dëkk soo amul visa demal Afrique ah? demal feneen nga làmb foofu bu dëgëree nga del si waaw waaye itam jàppal ni ak réew mu mën a dem ci àdduna sa wërsëg moom saa yoo ci waree jot dina ñëw loolu imam Ghazali waxoon ni yaa taliba rizqa fi dunia bi quwatihi taduuru min baladin fiha ilal baladi mu ne wax sir annaaka aw wax sir annaaka bu ne annaaka mooy sa coono waaye bu ne wax sir annaaka mooy sa volant sa gog mu ne li ana rizqa munqasimun dana wërsëg dañ ko séddale yéeg ci ilayka dana ñëw ci yow walaw fii jëpp hëti asadi donte mi ngi ci jëwu gaynde di nga dem ba ca moom ne ko coppet jël ko waaw waaye bu saako yàlla na yàlla ko leeram wax naa ko démb maa ngi nuy Adja Dégéen bu ma ko waaw ci émission boobale ñu jokkoo ak man ma ni leen la bàyyi bu saaxoo yàlla yokk leeram sama góor dafa waxoon ni bu ñu xippi woon sunu bët yéerndu ba gis magasin ba mbaa jal ba mu ni du ñu jiiroo te lu ñu tafoo mu ni ba léegi may wax ak yow yàlla nga ak lu amagul borom te soxlawu ko yàlla ni ñaan leen ma ma may leen te àdduna nag dafa yor jikkoy fa sunaaru góor moom àdduna li koy dawal mooy tegu teggin ngalaa bi xel nuxur muñ sol yërey sago teg ko ci yoonu jub foo jëm daa fa àgg kon yàlla garaat yaa joxew na koo fële waaye keroog fii yàlla teg rasulullah defe naa fa laa jàddee woon ndax émission bi di siire nag mbokk yi mooy waxtaane Seydina Muhammad ak beneen thème bu nu mën a jël rek mooy rasulullah ndax mooy actualité Seydina Muhammad waxta waxoon naa la barki démb ni la réew mënul dox te doxoonu doxiin rasulullah gi réew mu mënul jag te jël ñu ay jikkoy Seydina Muhammad bis boo ko bëggee mbon gi ne ci yow dina dañ te nit nag boo ko xamul doo ko bëgg am na ci ñoo xam ne nee nañu ma Pape Hann ma ne leen naam ñu ni ma doon ñu def lu bon mukk ma ne leen lu tax ñu ne ma dañoo bëgg rasulullah gi allahu akbar ñun daal xamuñu woon waa ji waaye léegi xam nañu ko ceet xoolal loolu xoolal wax ju rëy rek ñu ni ruux nag li mu yittewoo dëgg mu ñoom ñoom boroom xam-xam yi ak mu tasawufoon mooy teg ruux delloo ko ci cosaanam waaye cig matam moom ruux wa ilaa kamaliha ci xam gi mu xam borom bi subhanahu wa taala ak xam gu sell nag xam gu sell wal ubudiyati ak jaamu boroom bi subhanahu wa taala xam ni euh, yàlla moomu mooy mooy buur bi nga xam ni yàlla ne Seydina Muhammad Mamadou mu ni ko naam mu ni ko waxal gaa ñi ni bindu ma leen pour ñu jaamu ma dama leen a bind bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma man borom bi subhanahu wa taala waaw lahu xeyra anna ana irjaa ruuxi ila hada al was ila hada al wadai al asili al kaamili laysa amaliyatan waaw du du du du lu ñuy jëf nag waaw waaw ndax nee na nee na nee na nee na delloo delloo delloo ruux jëmee ko ci ay bërëb jëlee ko ci bërëb waaye jëmee ko ci bërëb bu sell teg ko foo xam ni mbaaxay nekk ci yow ku la ni jàkk xam ni ku baax nga borom bi subhanahu wa taala bég ci yow Seydina Muhammad kontaan ci yow parce que yàlla xam ni li mu indee fii def nga sa kéemtalaay kàttan pour pour bàyyi ko xel nga matal sa ruux nag nee na loolu du lu yomb nag waaw du lu yomb laysa amaliyatan sahal sahalatan waaw waaw lu yomb xereñe xereñeg nit mooy si ruux mooy moo baax ba nepp yunqinuha kulla insaanin waaw ñu ni fa ruuxu yambagi an tauda ila maarifatiha waaw alkaamilati billahi wa hada yaqtadi al yataxaqaq al insanu bi asma bi asmaa illahi ma al ubudiyati alkaamilati illahi ñu ni loolu nag yoon la woo xam ni yoon la wu yiw yoon la woo xam ni yoon la wu dëggu mooy ruux dana doy tolu di xëccoog jëm yi doomu aadama xelu doomu aadama pour delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala parce que doomu aadama dafa dëgër bopp yàlla bind ko ci fàtte yenn saa yi nga topp sa bakkan waaw mbokk yi bakkan dana koy feral parce que ndax bakkan dafa mel ni ki xale gis nga xale su amee ñaari at ñetti at feraloo ko jëm boutique ba dafay topp sa ginnaaw di laaj ween waaye boo koy feral muy feral muy bakkan yëg-yëg yi ci bakkan la ne bakkan dañu koy feral yenn saa yi nga gis nit taxaw di wax topp bakkanam di wax lu ko neex waaw di wax lu ko neex ba tasum réew wax lu ko neex ba tas mbokk wax lu ko neex moom doomu aadama parce que dafa topp bakkanam yenn saa yi nit jëf topp bakkanam topp googu mu topp bakkanam moo koy yóbbee ci loo xam ni du ko neex du neex ay bokkam bari na ko ne ci biir kaso bi na na na ma waa prison baal waaye am na ci ñoo xam ne ña nga fa am na ñu deful dara nag. am na ñoo xam ne nattoo leen fa yóbbu waaye am na ñu fa dugg ñoo xam ne dañoo topp seen bakkan waaw waaye ñoom la ma leen di nag mooy delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala delluwaat ci yàlla bàyyiwaat xel yàlla xamit nag ni li si naa li ñu waxoon ni àdduna bi warkat la <laughs> gis nga àdduna yenn saa yi daf lay jay dina la àdduna la di la nga dem ba mu yàgg topp sa bakkan nga dem ba mu yàgg nag àdduna wor la nga naan lu ma def yàlla toll ci guddi xam ne da ngaan laa tëmani dëhra xaa'uuna li annahu maa zaala xitman yu addibu li rijaali dinaa li ñu ko wax te ba mu koy mën na junni at ak ñeenti téeméer lu topp mu ni laa tëmani bul wóolu ak dëhra jamono xaa'uuna bay wuru jàkkoon dana adduna warkat la adduna warkat la ndax li annahu naka mu adduna maa zaala musta deñ yu addibu di yar li li rijaali ñeel góor ñi rijaal googu góor ak jigéen la ndax ba yàlla lay waxal sax kóllëre gi mu am ak nit baalu rijaal la jël minal mu'minina rijaalun sadaqu maa ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila yàlla nee na am na ci sama gaañ ñoo xam ni maam ak ñoom kóllëre kóllëre goo xam ne ci góor ñi jigéen ñi feccewuñu ko doxal nañ sama digganteeg ñoom man ci mbaax la ma leen digaloon la ma leen la ma la ma leen digaloon def nañu ko ñoom ñooñu la ma leen santoon lépp def nanu ko ñoom ñooñu yàlla nee na maam ak ñoom kóllëre koo xam ni am na ñu dem fecc wu ñu ko de waaye am na ñu fi dese di ñoom day wa ma dii la waaw duñu duñu duñu watteeg borom bi subhanahu wa ak kenn yàlla lañu bëgg kon loolu dafa jar a bàyyi xel dafa jar a bàyyi xel moo ruux nit pour mu am la mu bëgg lépp ci borom bi subhanahu wa mu ni nag euh, ruux nag dana doytalu euh, delluwaat ci xam borom bi subhanahu wa taala fa ruux yambagi an tauda ila maarifatiha alkaamilati xam yàlla la muy bëgg mu ñoom mu tasawufuuna yi waaw lañu seen seen dund la ñuy bëgg ci seen taalibe la ñuy bëgg ci doomu aadama mooy delloo delloo ruuxam cig mat waaw alkaamilati billahi ñu ni lii nag mooy mooy lu dëggu ci doomu aadama mooy xam kanay borom bi subhanahu wa taala ànd nag di jaamu yàlla ma al ubudati ubudiyati alkaamilati bi lillahi ànd ak nag di jaamu borom bi subhanahu wa taala jaamu gu mat sëkk waaw nee na lii nag mooy yoon wi wa hada tariquhu ilmun saxiixun nee na yoon wi mooy xam-xam bu wér waaw xam-xam bu wér mooy nga bay nga nat sa bakkan tàggat sa ruux defar sa xol waaw defar sa xol ana xol moo fi mu ne càmmoñ waaw nga defar sa xol tàggat sa ruux ngir xam kanay borom bi subhanahu wa taala te mbokk yi yàlla am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne xam nañ kañ la ñuy dee de mooy gaa yi mooy gaa yi waaw wahumul xawmu ñoom laay waxal de waaw ñoom alxawmu allazina sharibu min mahabbatihi ñoom fa taxayyar qulubuhum fi azamatihi fa naalu min mawlahu ma talabu mooy gaa ña nga xam ne am nañ ci seen borom lépp lu ñu sàkk woon waaw wa saadahumul waxtu fi ma raxibu mooy gaa ña nga xam ne temps bi dëppoog ñoom lépp lu ñu wax mu am temps bi dëppook ñoom am na ci yàlla ci gaay mi ñoo xam ni boo ñëwee jàkkaarlook ñoom di wax ci sa xel yaa ngi leen di tànqal ci sa xel yaa ngi leen di tànqal allahu akbar oh allahu akbar déggoo cheikhul xaaji abdul aziz dabaax radiallahu anhu nee na boo dematee ci raw du sëriñ Babacar Si si di faggee dem ma jawaar nee na na nga wax ndànk nee na jarul sax ngay ñëw ko ca biir waaw yamal fa la ca digg ci waawan rek loo ko wax sëriñ Babacar dégg na la sëriñ fàllu mbàkke mu baax mi sëriñ fàllu nee sama bàyyi sëriñ Tuubaa ba soxla yàlla day ba aras waaye man fàll fii laa naan galas yàlla wuyu ma su may kaf di wax yàlla kaf di dëggal ak njabootu seexul xadim gépp nag waaw nga xool njabootu seex sidil xaaji malik waaw seex na seex saat boog njabootam maam bu kuntal ci ne ba mal xaj ak njabootam seex al maam xalifa mag ñu baax ña la ngay wax ci sa xel yaa ngi leen di tànkal góor gi ñu war a yi tey ay mbiram de maam ah, Ahmed Ndiéguène léegi njabootam ñëw Xalifa Badiane moom ma nettali dafa moon dof bu nekkoon Thiès ñu koy wax suppa jaleñ suppa jaleñ ndax doon suppa jaleñ rek jël bopp bi teg ci suuf di suppa jaleñ di wëlndeeloo ko wëlbatiku nee na góor gi ne ko Xalifa suppa jaleñ mi mbaa du ngeen ko reetaan mu ne ko ah, kay maam mu ne ko bu leen ko reede ndax suppa jaleñ mi suppa jaleñ yi muy suppa jaleñ tànk malaaka yi lay dégg ci ron maam ahmad njegéen radiallahu anhu borom piliyaan ba ca Thiès ci góor googu kenn du moom moom itam ba ñëwee ne ko alxaaji abdul aziz dabaax génn àdduna dañuy alaaji ab demagul maa koy njëkk a dem taman demaguma mooy rumeur yi nga daan dégg rek jékki-jékki ne cheikhul xaaji dem na mu ne abdu demagul maa koy maa koy njëkk a dem taman demaguma waaw góor googu le moo tax mu dem 14 août kii dem 14 septembre kenn du ñoom gaayu yàlla yaa ngoog gaayu yàlla yaa ngoog bari na ko yàqu tooñ magal a yàq waaw waaye bari na ko defaru war maal mag ñi la tax a defaru war maal mag ni parce que ñoom ñoo lay tàggat defar sa ruux ba nga àgg ci yàlla léegi ak tazkiyatul axlaaqiya wa ruuxiya dañuy tàggat sa jikko waaw parce que ruux pour mu baax il faut sa jikko baax ba noppi parce que nit mënul bon di def lu bon di wax lu bon nekk ci lu bon bëgg sa ruux baax non ñoom la ñuy njëkkee mooy ak tazkiyatul axlaaqiya wa ruuxiya dañuy tàggat sa jikko ba noppi tàggat sa ruux mooy borom xam-xam yi jëfandikoo seen xam-xam. moo tax imam imam Shafii radiallahu anhu ne borom xam-xam yi jëfandikoo seen xam-xam bu ñu nekkul waliyu yàlla amul waliyu waaw in lam yakun il ulamaau l amilina awliya allahi mu ni fa laysa lillahi waliyun waaye nag maa ngay dem Tiwaawan anna abnaa Cheikh El Hadji Malick kaanu raafiqiina fi l ilmi waaye wal amali l xaalisi kenn du ci jëf jëf na yàccam waaw maa ngay dem de kon mag yi jar nañoo fonk jar nañoo suturaal jar nañoo topp ndax fexe nañu ba ñu xam yàlla xam rasulullahi wa mujalasatun maa ahli ahli dalika waaw wa zikrullahi azza wa jalla qaala taala wa tawakkal ala alxayi alladi laa yamuutu wa sabbix bi xamdihi waaw wa kafa bihi ila axiri aya yàlla nee na gis nga toogaay ba dégg nga wa mujalasatun maa ahli ahli ahli dalika wa zikrullahi azza wa jalla nee na nit buy fréquente sa fréquente sa fréquentation del toog di fréquente ñu baax ñoo xam ni dañuy tudd borom bi subhanahu wa taala na ngay fréquente borom xam-xam waaye yow ki ngay fréquente weran seen werante yëpp mbiri àdduna la waaw seen werante yëpp dañ lay dañ lay sax tardeel yenn saa yu benn nit wax ci dara ci rajo mbaamu wax dara ci télévision semaine Sénégal gépp loolu la ñuy waxtaanee bàyyiwuñu sax xel yàlla dañ lay sax tardeel kon del toog ak borom xam-xam moo xam borom xam-xamu ci lay jëme ci borom bi subhanahu wa la moo xam xam-xamu àdduna waaye na la jë na la na la na la amal njëriñ si na àllin waxoon ni wajaal jëlisaka sayyidan xam nga lu mooy ki ngay fréquenté na ko def muy sang xibrun na nekk fóore labibun na nekk ku ñëw aqilun na nekk ko am teggin euh, ko am xel mutaaddibu na yaru parce que nit mën na am xam-xam am xel am nekk fóore xibrun fóore labibun di ku ñëw aqilun mbir ma am ji xel muta addibu waaw ah, parce que nit mën na nekk fóore nit mën na ñaw nit mën na am xel mais est-ce que yaru na kon ki ngay fréquenté su dee borom xam-xam xoolal ba xam am na xel na am xel na ñaw waaye mais vérifier ba xam am na teggin parce que rasul a ëpp moo gën a nekk kilifa ñëpp moom Seydina Muhammad ma Seydina Muhammad te gën a yaru ñëpp moo gën a baax ñëpp moo gën a sell ñëpp moo gën a kawe ñëpp rasul nguur gu nit am fii ci àdduna wala pouvoir bu nit am alal joo mën a am tey bu fi njool màkka nekkoon di dund ba jamono yii dana naqaree gis de koo xam ne lu yàlla bind moom bu nekkuloo nag moom doonay xew bay xew Seydina Muhammad Mansour borom daaree daan wax bu nekkuloo nag moom doonay xew bay xew mooy rasulullah ki nga xam ne Cheikhul Khadim moo ko jël ni man maay mbindaanam ana Khadimu Rasul ak li mu ko liggéey lépp Cheikh na Cheikh Saad bu waxeertu Cheikh Seydil Hadji Malick jël dundam yépp jox rasulullahi ni ëllëg amul benn jëf bu ma yaakaar man Maodo ñu ne ko si loo yaakaar mu ni bëgg Seydina Muhammad waa kii moo ëpp daraja ñëpp moo ëpp kilifa ñëpp ndax lu yàlla bind kookoo tax moom moo ni adabani rabbi fa adibtu wala yàllaa ma yar ma yaru mu demoon ba mu yàgg ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàllaa ma yar rafetal samak yarin allahu akbar yàllaa ma yar ba noppi rafetal samak yarin moo tax mu ni mu ne sooy furi la ñuy wax doomu aadama mooy ka ngay fréquenté na nekk di koo xam ni ci ñooñu gaa yi la bokk mooy gaa yi nga xam ni bëgg nañu yàlla am nañu xam-xam am nañu xel ñëw nañu mais yaru nañu waaye itam di tudd borom bi subhanahu wa la yàlla waxoon ni na ngeen wakiirlu ci buur bi nga xam ne mooy dund te dee du ko donn waaw waaw wa tawakkal ala ala alxayi alladi laa yamutu na ngeen wakiirlu na nga wakiirlu Mamadou mu ni ko naam yàlla waxtaan ak Seydina Muhammad buur daali ni ko Mamadou mu ni ko naam mu ni ko wa tawakkal na nga wakiirlu ala alxayi alladi laa yamutu ci buur bi nga xam ni mooy dund waaw ci aji dund ji nga xam ni moom day moom borom bi subhanahu wa taala du dee mukk te nga sàbbaal yàlla te sant ko wa sabbi bi hamdihi wa bihi bi dunubi ibadihi xadiran alladi xalaqa alsamawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayamin summa sawa ala arsi arrahmanu fasal bihi xabiran waaw fasal bihi xabiran mooy na nga laaj aji dañ ci kumpa laaxid xawluhu fasal bihi xabiran ah in hada annaas yaxtamilu yaxtamilu ak ñu ni nit ñi ci gendeku googu pour nga xam mooy nga nga seetantal seetantal waxi borom bi subhanahu wa taala bi ma wax ni moom yàlla mooy dund te du dee mukk mooy dund te dee ñëppay gëmmintu di nelaw ba des yàlla laa taqusuhu du ko jot sinatun gëmmintu wala naw mu du caagin nelaw koo xam du gëmmintu koo koy kon du nelaw du nelaw nee na yàlla mooma Mamadou mu ne ko naam mu ne ko waxal gaañi ni kooku laay sàbbaal doy na ma sëkk moom borom bi subhanahu wa taala te nga jéggalul gaa yi kat seeni bàkkaar yàlla baal leen ko ndax yàlla attan lépp yàllaa ngay waxtaan ak Seydina Muhammad buur daal ni ko Mamadou mu ne ko naam mu ne ko yàlla moomu mooy ka nga xam ni moo bind samaani juróom-ñaar bind suufi juróom-ñaar ak li nekk ci diggante bi mu mu mu ne ko naam buur daal lay waxtaan ak moom de rasul mu ne ko naam mu ne ko yàlla moomu moo bind samaani juróom-ñaar ak fi juróom-ñaar ci bi ci juróom-benni fan ba mu ca noppee nag ca la ca la ca bind aras moom yàlla suma sawa ala arsi buur boobu mooy yërëm képp ku jëf ci àdd nekk ci àdduna waaye mooy jëf képp ku yërëm ku jëf ci àllaaxira moo ko yërëm mu ne ko mamud mu ne ko naam mu ne ko fas àllaajal bihi ci borom bi subhanahu wa taala xabiiran aji dañ ci kumpa nga lu xewa fas al bihi xabiiran yàlla moo xam lépp ku la wax fii ci àdduna xam naa lépp ne ko xamoo lépp ki xam lépp mooy borom bi subhanahu wa taala waaw waaye li ëpp ci loolu dañ ko laaj aarif billahi euh, mooy la luqmaan daan dénk doom ja akthar min maana ahaduhuma an tasala al aarifina billahi an illahi wa fi wasiyati luqman libnihi qaala taala euh, wa tabia sabila man anaba ilayya fa rajauna ila llahi tariquhum dafa am ku ne ci ligne bi. man la. salaamaaleykum salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Pape na nga maa ngi sant bu baax kooku. waaw man moom damay lépp tur bi xam naa. aha vie euh, vie baal ma defaral ma micro de baaxul de dégguma dara bismillah soxna si ñu ngi lay déglu. waaw damay lépp tur bi. bismillah. waaw sa numéro laa soxla woon. waa sama numéro waa bul coupé vie jox la ko waa. waa xaaral xaaral ma jox la sama yaay. d'accord waaw. <laughs> asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah yaay booy sant bi. ah Diop la ànd. waa kay Diop Diop la jërëjëf Diop Diop. kontaan yàlla la fi yàlla bàyyi lu yàgg yàgg. waaye amin amin Diop ñu bokk amin Diop. amin Diop di dajee ah, toog janoog yow am toujours dama koy jéem waaye du ma ko mun a am te yàlla sottal na ko. alhamdulilah alhamdulilah Diop Diop. wallaay war nga wax ñu ñu Mouhamed xam nañ lu bëri ci moom li nga wax sànq ne. Uh-huh. am na ku la wax ne yaa ñu wax Mouhamed yaa tax ñu xam ko. waaw. man day bëggoon naa ko waaye yokk na ndax yaa ma woon xam-xam bu bëri ci boobu yaa ma ko wax alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf yal na yàlla guddal sa fan amin yaay amin allahuma amin amin yal na yàlla guddal sa fan te numéro rek lañ bëgg a jot di la woo toujours nag ndeysaan ndeysaan ci kattanu yàlla jërëjëf xaaral ma jox la yi laa kontaan naa kontaan naa allo oustaz Babane la béyke soxna si man de dama gént démb si guddi waaw ay turu Mouhamed ci sama rebooru bàmmeel. kenn moo ko doon bind man. waaw. kenn du moom yàlla nga fi yàgg lool te wér. amiin xaaral léegi dinaa jël loolu gudd fan la gudd fan la yow demagoo demagoo dem di nga fi yàgg lool nag maa ngi yow ñu ngi fi yàgg. amiin yaa gën a bëgg Seydina Mouhamed yal nañu ko yàlla doole. amiin amiin dinañ jël léegi sa numéro. waa kay waa kay waa kay merci beaucoup oustaz Pape mhm. euh, am. waa bee maa ngi dégg waaw. allo. am na ko la ci xaar ñu jël sa numéro ci suuf. waaw waaw waaw euh, vieux jox ko numéro bi waaw. ndeysaan ndeysaan. est-ce que sallallahu alayhi wa sallam. maa la ko wax moom daal boo boo boo booy dem yóbbaale ko ci cofeel xamal ni sa affaire baax na mbokk mi ngi noonu vieux affiché li euh, numéro bi bu ko defee mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futur Média incha allahu taala soppay Seydina Mohamed yaa ngi fi nu ngi nuyu mboolem koo xam ni yaa ngi jàkkaarloog ñun. nuyu borom xam-xam ni ne ci biir réew mi euh, ñaanal leen yal yàlla yokk leen dëgëral euh, nuyu bu baax a baax a baax euh, sunu xarit sunu mag sunu ndijaay alxaaji Idrissa gay ca Thiès moom itam nu ngi koy nuyu di ko ziar xam ni ma ngay waajal bés bu magam le dina ñëw fii télévision Futurs Médias nu waxtaan ci bés ba di nuyu alxaaji Tafsir Abdourahmane gay sama jarbaat boobu Tafsir Abdourahmane Gaye di sama doom di sama jarbaat nuyu Serif Maamin Aydara sunu sunu sang boobule moom itam di sunu jarbaat Serif Maamin nu ngi koy nuyu di ko ziar Euh, nuyu bu baax a baax alxaaji Idrissa Diop sunu sëriñ boobule ziar ko euh, ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral oustaz Alioune Sall sunu soppe boobu nu ngi koy nuyu ah oustaz eh, Tayib Socé moom itam ñu ngi leen di ziar baax Ndiaga Seck oustaz Mor Thiam waaye nuyu ndokkeel Seyda eh, Adja Fat Bintou Diop ñaanal ko yal na ko yàlla yokk dëgëral ci darajey Seydina Mohamed eh, soxna Fat Bintou Diop ak waxtaan wu rëy yi nga xam ni waxtaan na ko ci suba nu ngi koy ñaanal yal na yàlla yokk xam-xamam Seyda Adja Fat Bintou Diop di nit ku baax di nit ku baax di suma xarit nag nuyu bu baax a baax a baax alxaaji Jiili Ñang mu baax mu yarum si bàyyi ko léegi ñaanal ko yal ko yàlla yokk dëgëral ci darajay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oustaz Abdoulaye Diop ca Thiès oustaz Malick Diop ca Thiès maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax Serigne Mara Fall nu ngi koy nuyu ziar ko nuyu Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Dieye bu baax a baax a baax a baax euh, Iran Ndaw oustaz Iran Ndaw ca euh, Sen TV moom itam nu ngi koy nuyu di sunu xarit moom itam ñu ngi waajal bisam bu mag boobule suba incha allahu taala ca Thiès Iran Ndaw nu ngi koy ñaanal moom itam yal na yàlla dooleel ko ci ndam ca darajay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Iran xam naa suba nag euh, xat-xat yeeg programme yi du ma mën a ñëw waaye ndokkeel ga laay ñëw na ma ko defee woon daaw incha allahu taala ñu ngi lay nuyu baax a baax ziar la vie am na ko ne ci ligne bi salaamaaleykum bismillah al maa ngi dégg euh, vie yokkal ma tudd dégguma de allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. bismillah sëriñ bi tur bi naka la. waaw man de Pape laa tudd. Pape naan. Ba. Pape Ba. waaw. waa kay Ba fooy wootee nii. maa ngi wootee Tëngéej. Tëngéej naka waa Tëngéej yëpp jërëjëf Ba. ñoo ngi fi ñoo ngi fi Oustaz. jërëjëf jërëjëf Ba bismillah bismillah ñoo ngi fi Oustaz man daal dama la bëgg rek te yàlla tax. ndeysaan jërëjëf waaye jërëjëf. xaj wallaahi billaahi wallaahi dama dama dama dama daan toog di seetaan télé nii rek damay jékki-jékki bu ma zappee rek yem si sa émission. Uh-huh, uh-huh. bu ma ko jiyee daal ngay waxtaan si Seydina Mouhamed daal yoo xamante ni man. Mm-hmm. lu lu bari daal loo xam ne xaw ma ko ci woon mm-hmm, mm-hmm. waaw damay dégg sa waxtaan daal mu intéressé ma lool ma bëgg la rek te yàlla tax. ndeysaan jërëjëf baax dama daan bëgg woo nag bis bu ne mais du ma am chance dugg daal. wallaay ndeysaan kontaan naa xaj. waaw waaw waaw bëgg la daal te yàlla tax rek. moo tax ma ne dinaa la woo jox wallaay wallaay dëgg la wallaay kontaan naa trop. waaw léegi nag sa numéro laa bëggoon am. waaw kay bul coupé vie jox la ko dégg nga bul coupé vie. waaw waaw bëggoon nag man daal oustaz daal man daal maa ngi lay ñaanal fan bu gudd ak wér rek. alhamdulilah alhamdulilah fan bu gudd ak wér daal laa lay ñaanal. amiin amiin ndax kontaan naa ci yow trop wallaay jërëjëf jërëjëf jërëjëf waxtaan yi ngay def nii daal am na solo lool lool lool. ndeysaan ndeysaan am na solo lool te da te daf ma laal sama xol bi laay walaay. ah alhamdulilah alhamdulilah. waaw waaw man daal dama la bëgg te yàlla tax te man daal maa ngi lay ñaanal fu ma toll. jërëjëf jërëjëf xaj bi laay walaay su ma lu may mënti def su ma la gisee si télé bi. dama koy bàyyi toog di la seetaan wallaahi wallaahi yéen a baax rek kontaan naa man bu ma gisee sa jëmm rek damay bàyyi li may def lépp toog di la seetaan. dëgg la dëgg la dëgg la baax billaahi wallaahi lu ma mënti def dama gi bu ma amoon fu ma war a dem wala ma am activité sax mhm, man mhm. boo génnee ci télé bi rek damay bàyyi loolu fekk seetaanuma ko ba mu jeex mhm. déedéet du ma ma ci man daal loolu man daal yàlla daal moo moo def loolu ci man rek daal ma bëgg la ko yàlla kontaan naa kontaan naa xaj pap yal na yàlla yokk la dëgëral amin amin yàlla sàmm ko lëri gi la ñaanal fan wu gudd ak wér amin ñu bokk amin amin kontaan nañ ci yow taxawaay bi yàlla na yàgg a a amin ba amin ba amin ba waaw numéro bi daal laa waaw bul coupé bul coupé bul jox la ko waaw bul coupé mu jox la ko jërëjëf jërëjëf xaj Pape jërëjëf kontaan nañu baax ñu ngi nuyu waa Tëngéej yëpp ñu ngi leen di ziar sunu asu Njaay ma nga Tëngéej sunu soppe boobule nu ngi koy ziar bu baax a baax nuyu waa Tëngéej ñoom itam ziar leen euh, nuyu Oustaz Abdul Aziz sunu soppe boobu sunu xarit boobule euh, moom itam ñaanal ko yal na yàlla imam imam imam Abdul Aziz euh, moom itam nu ngi koy nuyu baax mu laay ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax Abdul Aziz Mbaye ca Tiwaawan soxna Paala Mbaye nuyu Moustapha Mbaye Thiam nuyu soxnaam euh, soxnaam yi waaye nuyu nag sama soxna sama xarit euh, soxna yaa daba moom itam nu ngi koy ziar bu baax a baax a baax soxna Ayda Si ma nga tiwaawoon nu ngi koy ziar mu Cheikhul Hadji Abdoul Aziz Dabakh nu ngi koy nuyu soxna yaa Sofi si soxna mul xayri mu Cheikhul Hadji Abdou soxna Yaasin Ndooy ñoom ñëpp nu ngi leen di nuyu waaye itam ziar leen ñaanal leen soxna Muumi Kebe sunu xarit boobu yàlla yokk dëgëral moom itam ci daraje Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii am na ku na ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam Oustaz Pape An. waaw kooku. ay Oustaz man la Khady Sall kontaan naa. waaw kay Sall Khady Sall fooy wootee. maa ngi wootee depuis Louga. ah. Louga Louga. Louga ngay wootee waa kay Sall Sall. maa ngi nuyu jàkkaarloo yow kontaan bu bëgg a dee. ndeysaan jërëjëf Sall. Mhm. maa ngi doog woote ci télé. wallaay Sall wallaay Sall. Mhm. comme ñu dugg sànq lu ñu waxoon rek. Mhm. yaakaar naa ne sang bi moom ñu bëri suñ xamee ci moom dara. ginnaaw yàlla yow mi yaata. alhamdulilah rabbil alamin. waaw léegi nag franchement si numéro rek laa bëggoon. waaw kay parce que saa su ne dama lay bëgg a jot. wallaay wallaay Sall. kii dama ko mus a faat a tardé. ndeysaan ndeysaan damay toog di kakal lu may def damay toog di kakal sur heure bi. dëgg la Sall dëgg la dëgg la kontaan naa bu waaw kay ñu ngi lay ñaanal ñu lay ñaanal. jërëjëf Sall nga yàgg fi lool. lool yàlla wéral say cër. amiin ñu bokk amiin Sall amiin ndeysaan ah ah nag numéro am nag fa eh, li ngeen lijjanti leen soxna Xadi Sàll ndeysaan sama numéro la bëggoon fexee leen génne numéro am ngeen jox ko ko mbokk mi ngi noonu eh, ñu ngi nuy waa Louga yëpp tabarakallahu Serigne Alioune Diop tey Louga ak eh, njabootam alxaji Mujib Diop yëpp ñu ngi leen di ziar nuyu soxna Ndey Loo nuyu waa salon ba sama soppe yi nekk foofu le di soppe Seydina Mohamed mu ngi leen di nuyu Abi Ndiaye ma nga Mbuur ñu ma nga luga ñu ngi koy nuyu moom itam dem ba Kaolack soxna Ndey Ba ñu ngi koy nuyu Ami Ngiraan ñu ngi koy nuyu suñu yaay Aja Abi Ba alxaaji Njoogu Ngiraan suba alxaaji Mudi di te Kaolack ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax soxna Ndey Ja ma nga Kaolack Kasnack nu koy nuyu di nuyu borom këram xaaji Malik Ñang Seex Taal ca Kaolack ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara sunu baay alxaaji Abdou Aziz Diop sama maam Adja Awaka ñu ngi koy nuyu moom itam salaamaaleykum waaleykum salaam bismillah ah, alaaji Papaan kooku benn mbokkum taalibe ci kii rek bi naka la waaw ñu kay bismillah bismillah waaw kay ñu ngi nuyu waa Touba yëpp waaw alhamdulilah ndeysaan jërëjëf yaa ngi mhm. gi rek amin amin allahuma amin amin amin lépp loo yéene la amin allahuma amin amin amin tax ñu jox la sama mbokkum taalibe fi nga wax ak moom jërëjëf bi kontaan nañu asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay delloo bi kooku xëy. alhamdulilah tur bi naka la. Xaadim Mbaj. sëñ Xaadim Mbaj. Xaadim Mbaj Mbaj. Mbaj waa kay Mbaj bisimilah sëñ Xaadim Mbaj Mbaj. ñu ngi siyaar bu baax. ñu ngi la koy delloo Mbaj bisimilah. alhamdulilah bu ñu la waxtaanee ci sëñ Tuubaa. radiyallahu anhu jërëjëf Mbaj. waaw ah, radiyallahu anhu waaw moom gis nga yaa ngi gis léegi ñu ngi gis léegi ñu ngi teg kañ biñ biñ si benn fan. ah. ñu ngi gis léegi ñu ngi seetaan léegi ci télévision ci télémédia. waaw ñu teg. Eh, kaamil kaamil bi ñu bindoon ci benn fan bi. waaw waaw émission bi ngeen tegoon léegi yéen moom jàmbaar dëgg ngeen yéen a ngi taxaw ci. ndeysaan wallaay wallaay wallaay wallaay. yàlla na yàlla defal xéwal ak jàmm ak tawfeex. amiin amiin ñu ngi wàcc màggal gi bu baax. dara dara du leen ump ci màggal gi télévision Futurs Médias dina wane lépp. waaw mu ngi ko jàmbaar dëgg ngeen moom. jërëjëf alhamdulilah. waaw lii moom dina wax tax ñu xam ne. Uh-huh. ku tedd kenn la ndax kaamil boo xam ne ci benn fan lañ ci bind moom loolu moom dong moo ko mos a am ci la xoolal loolu loolu yéeme na yéeme na waaw loolu moom wax dëgg yàlla moom ñëpp dinañ xam ne murid yi ay nit ñu baax lañ wallaahi wax yi Sëñ Tuubaa moom toujours mbiram gën a jëm kanam rek waaye du jëm ginnaaw déedéet déedéet déedéet wallaahi wallaahi mbaj leen di ñaanal bu baax wallaahi mbaj jërëjëf mbaj jërëjëf jërëjëf xaaral ma jox la mel kontaan bi radiyallaahu anhu jërëjëf jërëjëf mbaj jërëjëf mbaj bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëriñ bi tur bi naka la. al oustaz Modou Khoule. waa kay Khoule Khoule bisimilah. léegi ñu ngi woote fii ci Touba Darou Darou Manane. Darou Manane. Darou mhm. Manane waaw. ñu ngi nuyu waa Touba yëpp bisimilah. waaw ñu ngi leen di siyaara bu baax a baax. ñu ngi la koy delloo baax a baax Khoule Khoule. leen di leen di leen dalal jàmm ci magal bu mag bi ñu jëm. incha allah incha allah. waaw yaa ngi waxtaanee koo xam ne moom Sëriñ Touba moo rek la soppam. ndeysaan ndeysaan. yaakaar naa ne turu Xadim Moussa moom dong moo ko am. ndeysaan ndeysaan. yaakaar naa ne amul moroom ci réew mi que kon nag nee na Sénégal yi ñoo ngi koy a xam bu ko xamee jërëjëf jërëjëf xule kontaan na ñu ngi nuyu waa Touba yëpp nag ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal yal yàlla yokk leen dëgëral ci darajey Seydina Muhammad jërëjëf xule jërëjëf kontaan nañu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf mbokki mi ngi noonu ñu ngi nuyu waa Touba yëpp ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokk leen dëgëral ci darajey Seydina Muhammad mi ngi noonu lislaam baa ngoog ma ngay jëm kanam lislaam baa ngoog ma ngay avancé waaye kat tax l'islam bi toll fii mbokk yi mooy sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalaam moom la yàlla waxal moom la yàlla faale fi mu jaar moom rasulullahi ak coono ga mu daj moom sayyidina Muhammad ca mbaa xam nga kon vie euh, nga duufalal sama bët léegi rek ma del yóbbu ma Medine nag yóbbu ma ca Madinatul Munawwara ma duufal samay bët ak sama ruux Euh, ki nga xam ni bu nekkuloon ak moom dara du am borom bareeru or ba ba tëdd madinatul munawara di sayyidina wa sallam nga xam ni koo yaakaar ka mu yaakaar kooka mu la yaakaar mooy rasulullahi kon vie li ma bëgg dimbali ma rek yóbbu ma Médine nag vie yóbbu ma Médine ma xooli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ñi fa demagul yàlla ñu dem ñi dem ba noppi yaay Adja aw xuma mi ngi noonu mi ngi noonu oh mbokk yi. bareer baa ngoog mi ngi noonu borom bareer or baa ngoog mi ngi noonu fii la tëdd moom Seydina Muhammad waaye fii lay dekki ëllëg ra mu jaam ñi ëllëg ku jug kenn du wax kenn du wax moom doo ngay wax waaw moom doo ngay wax xujjatullahi mooy layal mindee fi waaw ala xalq ajmain mboole seen nag kenn du wax ëllëg ki tëdd fii doo ngay wax moom doo ngay jukk ànd ak sa waaw ak keneen ku mën a jug di nga tiit xatal anbiyaa waaw waaye Seydina Muhammad rek moo naan bërët ak jekk waktaar wa ànd ak sa goom moom rasulullahi fii la tëdd mi ngi noonu mi ngi noonu ñi fa demagul yàlla nañ fa dem fii ku fi ñëw taxaw ngaal janna Musaa moo ko wax maa bay na bayti wa minbari rawdatun min riyaadil janna sama diggante fii ma tëdd sama ak fee ma taxaw di xutba ma nga bokk ca jardin aljana yi mi ngi noonu mi noonu mi ngi noonu l'islam baa ngoog ma ngay jëm kanam l'islam baa ngoog ma ngay am doole l'islam baa ngoog ma ngay avancé mi ngi noonu yàlla diggoon na ko waaye itam yàlla waxoon na ko barki démb ne ko Mamadou mu ni ko naam mu ni ko mu ni ko mu ni ko nit ñëpp daañu fàq wuy si la ñëpp daañu fàq wuy si la waaye la waral loolu daa xam ni nag mooy la ko may mooy sa mbaax gi waaw mooy sa mbaax gi moom Seydina Muhammad maa la yónni ci mboolem mbindeef yi waaw wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina yónni wu ma la lu dul ngay jëmmi yërmande yow rasulullahi waaw moo yilif ñëpp nag kii mooy kilifa ñëpp VIP bu mag baa ngi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw kii ku la ma ko waaw ku yàlla ma bëgg yàlla wax ko keneen Adama amu amu ko Siis amu ko noox amu ko suleymaan amu ko daawuda amu ko zulkifli amu ko ilesa amu ko daaniyal amu ko isa barki démb amu ko yurutu bu mës a dégg rek hëruna amu ko yusufa amu ko yaquba amu ko kenn amu ko li mu am kii ko am mooy borom barrière or bii moom la waaw kii mooy dëkkeen rek sa gom kii la yàlla faale waaw kii la yàlla waxal sallallahu alayhi wa sallam waaw mi ngi noonu mi ngi ngi noonu waaw dañu rek xool jarut may wax dara nañu xool rek nañu xool rek waaw maa ngi nuyu suñu yaay aw xumma suñu yaay jaa aw xumma nu ngi koy nuyu di ko ziar boo euh, ba di nuyu waa Zeye asalaam yëpp waaw suñu yaay Binta xumma suñu yaay Nafi ca day ndeysaan ma nga toog di ñu waaw ñuy ñu bëgg Seydina Muhammad ñu ngi leen di ziar soxna Faat Jaañ waaw Adja Ndey Silla Adja Faat ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax suñu baay Alxaaji Amet Tidiane Ba suñu alxaaji Lamine saar ñoom ñëpp waa Zeye asalaam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar euh, alxaaji Samba Jaañ ca Ndar nu ngi koy nuyu di ko ziyaar alxaaji Sayar Gay ma nga Ndar nu koy nuyu ak sunu pèlerin yooyu le ànd nag ñun ci aju ren gu barkeel ga waaw Adja Sofi Mbuub waaw di soxna Abdul Aziz Mbay waaw Sofi Màkka daaw ndeysaan ndeysaan di sama di sama seexu Màkka waaw ndeysaan ma ko Sofi ku la koy ñaanal mun sama nijaay ma ne kuy sa nijaay mun ma Abdul Aziz Mbay waaw waaw daw na Safa Marwa Sofi maa ngi lay nuyu di la ziyaar ndeysaan wallahi wallahi euh, euh, imam imam alhaaji Paate Paate Jóob ñaanal euh, di di jaal nag waa Ndar yëpp di jaal waa Galel di jaal su yaay Ajaa Awa Xumma ndax pèlerin mi dafa am ci kenn ku ci génn àdduna bërki démb di bàyyi alhaaji imam alhaaji Paate Paate imam alhaaji Paate Jóob naa mook mook sa yeer mook sa gay ñoo bokkoon néeg waaw waaw mook sa yeer gay ñoo bokkoon néeg xam naa suñu yaay Ajaa Awa Xumma su ko waxee dana ko xam waa Ndar yi imam alhaaji Paate Jóob di ko amoon pas-pas waaw mu du wax mu ni farata yëpp ca Kaaba ga laa koy jullee farata yëpp maa ngi koy julle ci Seydina Muhammad xeroon bëgg Seydina Muhammad bëgg yàlla waaw di góor gu baax yal na yàlla yokk leeram bàyyi laa ji baat baat Diop nit ku baax ndeysaan di ko am farlu ala jiili ña ngi ne mi ngi koy jaal waa Ndar yëpp sëñ jiili nee na mi ngi leen koy jaal suñu yaaw jaal ko suñu yaay jaaxu awa asalaam yëpp alaaji paata yal na ko yàlla yokku yërëm mi ngi noonu euh, soxna Ndey Faatu Mbay ca amoo ak waa daayira ba mbokk yi mi ngi noonu seen gàmb gi suba la incha allahu taala ci amokaat soxna day Fatou mbay xam nga euh, ñëw na fii ci commercial daal di fay euh, defal nañ leen avant premier mbokk yi wax naa leen ni lu ngeen mën a yëgle incha allahu taala di ngeen di mën a ñëw ci émission bi di siira waaw bu ngeen ñëwee commercial rek li ngeen di fay du bari ngeen ñëw ñu waxtaan wala ñu defal leen juróomi minute boo xam ne lu ngeen bëgg a wax wax ko du bari ñëw jëlal leen ko tegal leen ko incha allahu taala fii lay doon ci télévision Futur Média dara du leen ci umpu incha allahu taala léegi nag maa ngi war a dalal alxaaji daam jegéen ak uh, waa kër moom alxaaji ëmmat njegéen yi ñu àndal yépp uh, vie nga baal ma rek xamal ni sama invité yi defe naa ñett lañu uh, ñaari seize lañ ma tegal fii mu des benn ah ñaar ñoo ñëw waaw kay alhamdulilah kon xam naa cinq heures mu jot mo na am na nañ julli ji nag waaye muxtaaru tàkkusaan nag dem na ba six heures man 5 heures dem laay pare su ma paree julli tàkkusaan ndax moxtaar mi dem na ba 6 heures waaw pour ñuy julli naan Pape Ana ngi wax rek julliwul waaye moxtaar mi 4 heures la tam 4 heures et quart la tàmbali ba 6 heures tisbaar mi ngi tàmbali 1 heure et quart ba 4 heures bu ko weesoo nag da nga ne maa ngi fas yéenee fay waaye maa ngi ci moxtaar mi su ma demee ba 6 heures su ma paree 5 heures demee rek daal di julli kon ñi julleegul nanu dem julli ji euh, ñi may xaar pour ñu julleendoo nanu ma xaar rek ñu àndandoog man euh, julleendoo xam ni ñu ngi ci ñu ngi ci moxtaar mi waaw incha allah taala fekkee am na ci ku ne ci ligne bi vie ñu jël sunu soppe yooyu le euh, ñoom itam ñi nga xam ne ñu ngi fasafoo seen émission bi di siira bëgg télévision Futurs média waaye nag bëgg si Seydina Mohamed am na ñu ne ci ligne bi vie nañ ma ci jox ma am ñu ma jël ndax nit ñi dañuy bëgg dugg am na ku ne ci ligne bi salaamaaleykum. ñu ngi ziar. ñu ngi dellu ah, bismillah kooku. la seexaloo euh, ca Bakk. kenn la. Pape Kébé. Alxaaji Pape Kébé. waaw waaw bu Mbuur ak waaw waaw Kébé Kébé xaj Pape Kébé Kébé Kébé. waaw ñu ngi jaar. na radu zalika ñu la koy delloo naka naka coono màkk gi baax wàññeeku na bu baax a baax a baax. wallahi wàññeeku na bu baax a baax. alxaaji Pape Kébé jooye na ba sonn ca màkk ndeysaan. waaw waaw waaw wàññeeku na bu baax macha allah. wàññeeku na ndeysaan ndeysaan amin amin amin amin Kébé.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 jërëjëf alhamdulilah Kébé kontaan nañu baax a baax a baax. yàlla na ah, kontaan. nañu baax a baax a baax Kébé. kon ñu bàyyi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. baarakallaahu fiik na yàlla barke kontaan nañu ñu ngi Mbuur yëpp ak waa Kaolack ñu ngi leen di ziyaara baax a baax. jërëjëf maa salaam. mbokk mi ngi noonu nu ngi nuyu baax a baax Alxaaji Pape Kébé ma nga ca mbuur ak diggante mbuur ak Kaolack nu ngi koy nuyu di ko ziyaar ñaanal ko yal na ko yàlla yokk dëgëral ci darajay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk mi ngi noonu ñu ngi jéggalu ci kàddu bi baax a baax lépp loo xam ni wax nañ ko muy ay rëcci rëcci ñu ngi ci jéggalu baax xam ni mbaax lañ ci namoon waaye itam euh, euh, ki nu ñor mooy waxtaane suñu waaji waaye itam waxtaane mag ñu baax ñi waaye fexe ba jëmmi doomu aadama jakk waaye itam jëmmi doomu aadama baax li ma leen léegi ne tey moom dañuy dem ba Thiès fekk sama waa kër maam alxaaji Moodu Njegéen radiallahu anhu mbokk yi mi ngi noonu ñu am bés bu mag bu nuy waajal nuyu xalifa ba alxaaji Muniru Njegéen ñaanal ko mu yàgg fi lool te ak njabootu maam Ahmed Baro Njegéen yépp nuyu bu baax a baax Serigne As Njegéen imam nuyu ko moom itam ziar ko borom xam-xam bu mag boobulee ñaanal ko yal na ko yàlla yokk dëgëral ci darajey sayyidina Muhammad gan yaa ngi nii agsi nanu ñu ngi nuyu bu baax a baax muy Seydi alxaaji Muniru Njegéen Seydi alxaaji Abdourazaq Njegéen sëñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar bu baax bisimilah ñu bàyyi la nga nuyoo. barakallah aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin nabil ilmi alladi nuallimu bihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim oustaz Pape ñu ngi lay nuyu bu baax di kontaan ci toogaay bi ñu toog ci plateau bi mm-hmm. ci ndigalu imam alxaaji ahmad baro mm-hmm. muy président des des imams et ulémas de la région de Thiès. mu boole ñoo xaaji daam njegéen mi nga xamante bi mooy coordonnateur u bis bu tedd bi nga xamante bi nii mu ngi koy woote ca Thiès. di ko terale maamam di turandoom ñu ngi nuyu bu baax it sëriñ Mouhamadul Mounir mi nga xamante bi moom mooy xalifa ba ak njabootu alaaji Ahmad Bargo yëpp jërëjëf njegéen mbokki mi ngi noonu euh, sëriñ Abdourazaq njegéen incha allah taala ñu war a waxtaane gaaw yàlla yooyu am lu ñuy waajal nag mooy bés bu mag a mag nekk euh, le 6 le 29 mooy suba le 29 incha allahu taala ñu war ci waxtaan di ci woo waa Cees yëpp ak waa adduna bi yëpp xaj mu niru moo sama sëriñ la sama xarit la ñoo nekk ndoon ca daara ja waaye itam muy borom xam-xam nu ngi lay nuyu baax njegéen ñu ngi lay ziar bisimilah alhamdulilahi rahimil haadi liman yashaa summa salaatullahi wasalaamu ala rasuli xubbuhu salaamu sallallahu alayhi wa sallam in istaxastu bi nabi lhaadi almunqizi lwara ila rachadi mhm. wa najlihi wa najli najlihi lkarimi saydina ahmad ziddin alqawimi mhm. salili isa aljuudi najli saydi mawlaay idris saxil amjadi najli walillahi abdillahi alkaamil almajdi bila tanaahi mhm. mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen ko baal it sëriñ imaam ñu ngi lay nuyu baax di nuyu mbokk bitim réew yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñëpp ñu ngi leen nuyu ku ci nekk ak kër kilifa diine yëpp ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di mm-hmm. ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ko ci réew jullit yëpp amin jërëjëf njegéen mi ngi noonu insha allahu taala léegi rek alxaaji daam njegéen moom itam dana ñëw tabarakallahu am leneen loo xam ni mottali na ko ci waxtaan wi euh, Abdou Razak tabarakallahu yaa ngi bàyyi ko Thiès yaa ngi bàyyi ko ca ëtt góor yàlla bu tedd boobule di moom Ahmad Ndiéguène radiyallahu anhu gis nga am na lu ma jof léegi ci wilaayam nga ci bëggam nga yàlla ci xamam nga yàlla ak jubóog borom bi subhanahu wa taala mais ak may ya nga xam ni góor gi amoon na ko lan nga ñu mën a dollil ci góor gi radiyallahu anhu suma walaaj Ahmad ngi gënee àddina ci dëkk bu ñuy moom Ahmad ci Kassas nekk mhm. góor gu mag bu ñu maam Mouhamedoune Ndiéguène ak soxna su tedd suñuy wax maam Faatumata Ndaw di doomu bëlëb buuru Ndukumaan 1825 1825 la gane àddina ca Kassas radiyallahu taala yàlla dogal mu nekk ñu tudde ko le dernier missionnaire ci famille Ndiéguène ndax ñoom seen cosaan sori na lool ndax ma nga nekk ca arabi Saoudia ci dëkk bu ñox wax mhm. yàlla dogal ñu bokk ci almoravide yi mooy ñi nga xamante ni au onzième siècle la dugal lislaam ci biir Afrique kenn ca ñoom nag di Chérif Souleymane mhm. moom mooy ci sunu maam Chérif Souleymane moom moo dugg Yudum ca Éthiopie moom moo jur ku ñuy wax Cheikh Ibrahim mu jur Cheikh Fatima Fatim mu jur Cheikhu Malik Almaami ma faatim ma Hatta Mouhamedun Alhaji Ahmad Baro. est-ce que est bi nga xamante ne gane na àddina foofu la yàlla dogal bi mu amee ci 35 ans 36 ans la waxtu jot ci moom. Mhm. ginnaaw bi ko bàyyam jàngale wàcce ko ki magam. Ahmad Maram Samba Maram Ibra Maram mu ne day ñëw Tëngéej laxas pour mottali njàngam ci nijaay Birane Cissé ndax moo nekkoon professeur bu mag bi nekkoon ci Tëngéej. def na fa ñaar fukki at ci ñaar fukki at yooyu nag la mottale àlluwaam daana dëgg ci biir réew mi daana ñëw ba ndakaaru waaye waxtu jot nag tafsir Birane Cissé moom moo ko jox tarixa bi alaaji Ahmad Baro ca noona yi pour mottali tarbiyaam nag ci la ko boole si Chérif Sidi Mouhamed Fadal Chérif Sidi Mouhamed bi nga xamante ni Birane Cissé mi ngi dem Makka la ko dénk Chérif Sidi Mouhamed Fadal moom nag moo ko wax ne ko sama maam nee na na nga dem Cees jànqin fa la nga war a mottalee sa liggéey mi ngi ñëw cees en 1885 bi mu dem cees nag mi ngi ànd ak ñett mi ngi ànd ak Serigne Amar Ndiaye mi ngi ànd ak Ahmad Jama Cissé moo nekkoon moom it professeur bi nga xamante bi ni moo yoroon daara ji ci kër ga. Mhm. mi ngi àndoon it ku ñuy wax Mahi euh, Amad Ndiaye di bàyyi Mahin Ndiaye ñii la àndal ñëw cees mhm. waaye ba mu ñëwee Thiès en 1885 fekk na Thiès càkk amu fa. Mhm. moo kër mu njëkk fa far 1885 la rëdd jàkk ci Thiès. 1885 1885 ci la wut àll wa teg ko ci lupp yi gone di leen jàngal. Allahu su waxtu julli jotee mu dem noddal boppam su noddee fa tabaarakallaa ña ko fa fekk mu bokk julleeg ñoom ci noonu la fa nekkee fat ba ba ba waxtu jot mu ñëw créé quartier kër ma Maam Alaaji gii. ndax dañ ne Chérif Sidi Mouhamed moo jógee Chérif Sidi Mouhamed Fadel moo jógee Tëngéej ñëw ne ko sama maam nee na waxu la fii nee na nga dem tuuti ci penku bi. boobu mi ngi dëkk fi ñuy wax gendarmerie. foofu la dëkk ci ngent waaye nag ci law toxu nag dem quartier Kër Mamalaaji gii foofu fa tabarakallah mu sàcc sànc quartier Kër Mamalaaji maa ngi ñëw léegi Abdourazaq xam naa incha allahu taala alxaj Muniru dégg nga góor gi li mu wax wax nañu cosaan silsila moom alxaj Ahmed Baro radiallahu anhu fi mu bokk fa mu jóge ak ñëw na euh, Thiès ci ndigal waaye itam dégg fi ma doon waxtaane tey yow xam nga ci lu bare lu am solo. mbooleem xeetu góoru yàlla yi ginnaaw bi ñu jàngee ba pare. nga xamante ne mooy uluma charia. dina am beneen mbir moo xamante ni dañ koy lijjantiwaat. xam nga ni ab oto lu mu baax baax. lu carburant ba doy doy. lu chauffeur ba mën a dawal dawal te amul ay roue oto rek lay tudd mais du mën a dem fenn. góoru yàlla yi boo ko jaaree ci sëriñam Seydina Cheikh Ahmad Tidiane yi jaar ci Cheikh Omar Fouti mi nga xamante ni leer gi yëpp moo ko wàcc ci moom mhm. ku ci mas jàng ba pare rek dafa am benn yoon wuy dëgmal ñu koy woowe at tasawuf mhm. at tasawufu nag bi ñu laajee imaam Junayd di lan mooy tasawuf ci tënk ak gàttal ndax waxtu duñ ko may dafa wax ni xifzul awqaat yi xifzul mhm. awqaat yi nag mooy di nga dégg yenn góoru yàlla ñu leen tuddee saaxibul waxti xifzul awqaat mooy mbooleem sa waxtu li ci war lépp ci jaamu yàlla nga def ko ci est-ce que Cheikh Alhaji Ahmad Boro Ndiéguène di ko sëriñ bi waxee sëriñ Abdou bi nga xamante ni yàlla def na ci moom loolu ndax tasawuf pour nga mën cee dugg dafa am fukki ponk yu koy conditionné téye ko pour ñu mën laa tuddee ak tasawuf mhm. bi ci njëkk mu gën a am solo dafa am lu ñu naan taj ak tajriidu tawxiid tajriidu tawxiid loolu mooy lan mooy wuññi summi ko ci mbubb moo xamante ni lépp lu dul yàlla di ciy jóge ba tawxiidu ilaahi rek ngay dese. allahu akbar tawxiid googu nag pour nga mën ko am dafay am yu muy àndal ba mën ko composé tawxiid ci boppam dafa am ñetti leer yu muy àndal pour nga mën a dugg ci këru tasaw fëgg ci rek laay wax. Mhm. ndax waxtu duñ ko may. Mhm. ndax ak tawxiid ci boppam dafay ànd ak nuurul hidaaya. Mhm. am nuurul inaaya. am nuurul kifaaya. benn bokk la sa morom. ñetti leer yi bépp bu ci manqué mënoo fëgg ci tasawuf ñu ubbil la. Cheikh Hadj Mouhamadou Ndiéguène bi mu amee nuurul hidaaya ndax nuurul hidaaya yàlla moo koy. nuurul hidaaya mooy lan. al hidaaya mooy leer boo xamante ni yàlla moo lay orienté boppam. leerub njub. leerub njub. Mhm. moom la yàlla waxoon yonent bi ne ko innaka laa tahdi man ahbabta. Mhm. walaakinna Allaha yahdi man yashaa ndax dafa am ñaari hidaaya moom hidaayatu dilaala ak hidaayatu tawfiq. Mhm. hidaayatu dilaala nag moom. yonent bi moo ko mën. sallallahu alayhi wa sallam hidaayatul tawfiq yàlla subhaanahu wa mhm. am nuurul hidaaya mooy leer boo xam ne yàlla moo la orienté. Mhm. ngir mën a fëgg ci buntu boobu. Mhm. am nuurul inaaya mooy yàlla ci boppam moo lay garantil boppam fonkal la boppam. am nuurul kifaaya mooy leer boo xamante ne lu dul yàlla dootu la saf dootu la doy. nga mën nag fëgg ci buntu tasawuf ñu mën laa ubbil bu ko defee nag booy génn dugg ci tasawuf dafa am ñaari ndubb yooyu àndal. dafa am lu ñu naan at tajrida ak at tafrid mhm. at ya mooy an yatajarrada an yatajarrada bi zahirihi mhm. anil aaraadi lay doon mhm. mooy da ngay rafle wu ci zahir bi ci lépp loo xamante ne obstacle la buy dox sa diggante ki ngay wuti allahu akbar ñaareel wooyu baatin yi anil aawaad lay doon ñaari yi yëpp da nga ciy rafle ñaari mbubb yi danga nga ciy rafle wu doo ko mën a fëgg nag pour mën a dugg pour inscrire ñu mën laa tamponner pour nga dugg ci tasawuf kon tasawuf Cheikh Hadj Axon borom jógeen Serigne Abdou ni mu ko waxee ginnaaw ba mu jàngee dafa yëg ni nag am na leneen lu koy yeggale la yeggale woon Seydina Cheikh Ahmad Tidiane yeggale woon Mouhamadul Ghali mhm. yeggale woon Cheikh Omarul Fouti yeggale woon Mouhamad bun Abdul Aziz ad-Dakali mhm. yeggale woon ak Mouhamad at-Tunisi yeggale woon Mouhamadul Musri ak yeggale woon Alin Harazim ponkol yooyu nga xamante ni ñoom ci ñooñu la doon kii dafa am fu ñu jaaroon mhm. moo tax boo gisee si tariqa bi Seydina Cheikh Ahmad Tidiane yaa ngi dégg ci téere mu naan sumartaqa immatul aliya li tariqati saadati suufiya Seydina Cheikh Ahmad Tidiane ginnaaw ba mu jàngee dafa wuti tasawuf Cheikh Hadj Axal Borom Ndiéguène ginnaaw ba mu jàngee dafa dem tasawuf ndax mooy tax nga mën a xam yàlla di ko man am zawq bi di man a naan te doo màndi te fu muy jugee. loolu it arab waxoon sharibtul hubba. waaw kay kësan baada kësin fala nafida sharaabu waaye wala. waaw waaw mooy naan maa ngi naan guddi ak bëccëg ndax fontaine bi muy muuci di ko naan. man maa ngi yëg ni maa ngi naan te du ma màndi te leer. la ma naan jeexul la may fa muy jógee du fa jeex te fi muy jëm du fi doy. te pour nga du pour nga mën a bokk fekkee réunion ba ci xadratu illaahi il faut nga suubu ci yoonu gaay yi. boo ko fookee mën a doo dem. loo mën a mën a am te jaaroo fii ma lay wax doo mën a dem. góor yàlla yaa ngoog moom alxaaji ahmed baro njegéen a ngoog gis nga alxaaji muniru moom itam wax nañu góor googu mooy kan mbokk mi ngi noonu réew maa am nañu loo xam ni kenn amu ko kon waa Cees am na loo xam ni am nañu loo xam ni euh, kenn amu ko mooy góor yàlla goo xam ni dafa dëkk ma jox borom bi subhanahu wa taala euh, ñu ngi doon waxtaane cosaanam waaye ñëw na Cees moom alxaaji ahmed baro njegéen radiallahu anhu ci 1885 ci la ñëw Cees sanc na daara ja mais kañ bi mu sancee euh, kër moom alxaaji boobu boobu tubaab yaa ngi fi waaw bokk na ci li ko tax toxu. Mhm. génn ngent gi mu nekkoon. dem kër Mamalaaji. Mhm. boobu dañu commandant de cercle bi. Mhm. dafa wax ni alxuraan ji taalibe yi di jàng. ak nodd yi ñuy nodd dafay tànqal jabar ak day sonal ay jabaram ndax fajar dootul nalaw mu ne ko may naa la 15 jours nga tox ci 15 jours yooyu mu ko may. ci la shérif Sidi Mouhamed Fadel jóge Tëngéej ñëw ci El Hadj Ahmed Baro ne ko sama maam nee na da war a dem ba ci penku bi. loolu moo indi euh, déplacement bi mu ñëw nag sanc quartier kër Maam Alaaji mu ne ko nag sama maam nee na mhm. sa pénc guy mooy nekk péncam fi ngay tarbiyee nit ñi guy moo fay nekk ci sa penku jàkk guy moo fay nekk soo nekkee kër Maam Alaaji am na guy gu nekk ci digg ci digg pénc mi mais soo ko xoolee benn ligne la am na bu nekk ci kanam moom armeel yu ndaw yi foofu lañ nekk ñi daan ànd ak moom bi mu sancee Thiès mag ña àndoon ak moom moom foofu la leen denc ci kanamu jàkk ji kon sanc googu ndigal la ko amee ci Seydina Muhammad yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni moom moo nekk mhm. a ñëw si moo daan jiite iit ma sëriñ si su julli jotee rek kilifay Thiès yi war seen fas di tëgg seen i ndëgg mhm. ba 11 heures jëm midi mhm. moom sëriñ bi ñoo lal deram rek tan alaaji Ahmad waaye tukkula rek la daan lakk alaaji Ahmad Gora bi mu ñëwee nag dégg na arab dégg na tukulóor dégg na olof. Hmm. di di ko defal interprète. Hmm. ca noonu nag la yàlla dogal. Hmm. ca loolu la yàlla dogal ma sëriñ daal di woo waa Thiès na leen. saalum saalum bii ñëw fii ci ñun de man jikkoom doy na ma xam-xamam doy na ma yàllaam doy na ma te mën naa wax ak yéen ngeen di déggante bon laal cër bi ngeen ma joxoon joxoon naa ko ko alaajan mbaro di jiite iit gi di jiite eh, tëbaski ak korité ca noonu nag ca la leen xamal ni ah suba la ñuy julli iit waaye nag waxtu wi nag 9 la. yoor yoor la war a doon mhm. man du ma def ni góor gi daan def mhm. fañ nekk di tëggante ak fecc ñoom ceddoya ci lañ leen wax ni sëriñ bi mi ngi julli mhm. bon moom xaaru leen li nga xamante bi la ko l'islam digal alaaji ahmad baro col loolu commencé xamoon ne alaaji ahmad baro turam amadi njëgeen la amadi amadi njëgeen ñii ne turandoom moom moo moo sant baro ñuy wax ahmad baro ñenn ñi ne déedéet Chérif Sidi Mouhamed Fadal comme moom nitu yàlla bu mat sëkk la woon ca Tëngéej bi nga xamante bi ne xool na jikkoom xool doxalinam xool melokaanam ci la commencé naan ko albararu gaynde albararu gaynde gi albararu albararu mhm. albararu boobu mhm. nee nañ fa la Ahmad Baro jóge bon bi muy jógee Tëngéej di ñëw cees ci la indaale garaatu albararu boobu gaynde gi ci euh, euh, gaynde dafa bëri ay tur waaw albararu ci turu gaynde la bokk ci ñu ne bon alaaji Ahmad Baro bi muy ñëw Thiès xam nañ ni ñu ne looloo tax yonente bi ak Seydina Cheikh Ahmad Tidiane tànn ko parce que xam nañ ni Thiès mhm. dëkku ceddo la boo xamante bi ni fa tabarakallah ba mu ñëwee nag la commencé di doxal liggéeyam comme ni ma waree ci noonu la commencé di samp bëgg a samp jam juma mm-hmm. ñu ne samp na sotti na xeer ci ñetti place sottiwul ci la waa Thiès waxtaane nag la première grande mosquée de Thiès moom moo nekk Muusante kon moom alhaji Modou radiyallahu anhu moom Thiès la gane àdduna alhaji Ahmad ba alhaji Ahmad Ndiéguène mi ngi gane àddina à Thiès en 1890 bi nga xamante bi ne nee nañu bàyyam mage na ko 67 ans Allah alhaji Ahmad Baro bi mu am 67 ans alhaji Ahmad Ndiéguène nag am na ñaari mag Aysatu Ndiéguène moo jur ñu sant Kanji nekk njaarim mhm. faat njëgeen moo moo moom la mayoon Ahmad jamaa professeur bii ma leen wax mhm. mu jur cee moom Serigne Lamine Cissé di borom xam-xam bu mag nekkoon imaamu imaamu dëkk ba tey ab doomam sëtam bu ñu Alaaji Mouhamed Cissé mooy imaamu jàkka ja sa morom la kon fa tabaarakallaa noonu la organisé nga xamante ni dafa jël ay ay doomam yu jigéen yëpp may leen ay boroomi xam-xam ci la jël soxna Zeynabu Njëgeen may ko sunu maam Abdourahmane Gaye ci la jur sunu baay alaaji xalifa gay mooy moomu sa gaay yooyu barakallahu tamsir euh, yal na yàlla yokk bàyyi ko fi loolu bàyyi alxaaji xalifa gay moom itam nu ngi koy nuyu baax di ko ziar euh, alxaaji Muniru dégg nga sëriñ Abdou Razak li mu li mu wax ci góor gi nga xam ni gaay yàlla yaa ngi ko te ñoom it lu ñu def na nga ko amee ci ndigalu Seydina Muhammad mais relation bi dox seen digganteeg rasulullah waaw tabarakallahu kon li sëñ Abdou wax rek ci laay dëgg mhm. ndax it gis nga nit jàng ba géeju te amoo isne ci def daawa doo amoon ndigal ci ci def ndigal ci woote doo dem gis nga ñu jéggal ma danga gis comme suñu réew mi fi mu toll mhm. ku am xaalis bu bari dugganteeg ay kilifa yu bari mën ngaa ne sëriñ waaw waaw loolu am na léegi xaalis moom boo amee xaalis waaw am tabarakallah benn ndomba tànk borom ndomba tànk bu la ngemb rek mhm. booy góorgóorlu sëriñ bi kooku mu ajuwul ci xam mu ajuwul ci dara mhm. mais saa yi boo dee sa kër fay allahu akbar saa yi boo dee sa kër fay parce que sampuwul ci isne mhm. Cheikh El Hadj Ahmed Borom Njigéen damay wax gis nga xadara boobu mhm. buñ fa bàyyi woon koo xamante ni sa xel mi baaxul mais dañ koy sang rek defar ko teg ko du tey mission bi day dox parce que fu mu jóge la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu isne bi sëriñ Abdou wax parce que nitu yàlla saa yi bu nekk dañ lay orienté ni la fii nga war a dem wala fii nga war a dem moo tax keroog ba nga xamante ni jot na ndigal la mooy dellu ci la waa ji waxoon ndax dafa xamul ni moom yàlla rek rek rek li mu dëgg yàlla rek moo ko mën a jox. Mhm. moo taxoon mu dee la daw dem tafu ji ci yàlla ndax benn waykat dafa wax lu ne ci àdduna boo ko ñàkkee am na la ko wutal. Mhm. soxna si boo tàggoog moom yàlla booy góorgóorlu amaat kaneen oto bi bu yàqoo booy góorgóorlu amaat kanin mhm. kër gi bu yàqoo boo góorgóorlu amaat kanin liggéey bu yàqoo boo góorgóorlu amaat leneen mhm. ndax waaye nag yàlla kuy sàggan bu mu rëcc la doo am koo ko remplacé yàlla kuy sàggan ba mu rëcc la doo am ko remplacé allahu akbar ndax mu ni li kulli shay'in iza faaraxtuhu iwadun mhm. wa laysa lillahi in faaraxta min iwadin allahu akbar Cheikh Hadji Ahmad ni waa ji doo nga fi des ci la daw dem tafu ji ci moom te tafu ci moom nag mooy tafu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Cheikh Ahmad Tidiane dafa wax ni erreur bu mag a ngi am ci réew mi ñu ngi koy wax dama bëgg yàlla nee na erreur du ko gën a mag nee na laysal amru du noonu de nee na bëgg yàlla amul njariñ fexe ba yàlla bëgg la mooy la am njariñ te nag yàlla pour mu bëgg la dafa teg yax nas arxuwaan nas yax la boo mm-hmm. xamante ni kenn mënu koo firi nas buñ ko waxee mooy wax joo xamante ni kullu lafzin waaridin lam yaxtamil illaa li maana wax loolu la borom usul wax mm-hmm. moom sàmm nga ci dégg mënoo ci dégg ab laay mm-hmm. nas la ya Seydina Cheikh Ahmad Tidiane wax ni ku bëgg yàlla bëgg la da ngay bëgg yonent bi ndax in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'un bu ko defee rek Cheikh Alhaaji Ahmad Baro Njegéen nag daal di jël yonent bi teg yox béppul laa waaw wala yaxibakum laa boo ci wax daal comme nañ ko jàpp ca laam ca laamiyatul afaal laamiyatul xaw afaal mm-hmm. tabarakallaahu mu jël yonent bi boo xoolee njabootam yëpp ku mu ci tuddeewul Seydina Cheikh ma Tidiane yi ak Cheikh Omar Fouti yu njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la tuddee cofeel moo ko waral te loolu ndigal la moo tax sëñ ab ni bi mu amee ndigal ci yonent bi sallallahu alayhi wa dama ci gis ca xasida yi ñuy wax ndax mm-hmm. benn waxkat dafa wax ne nitu yàlla. Mhm. am na ci ñoo xam ne niveau ndox la ñu yor. niveau ndox ndox ni mhm. ndox di def ci suuf la ñuy def. ci mhm. askan wa ñu fekk. am na ñoo xam ni ni fleur di def ci bët boo xëyee di ko xool noonu la ñuy def. am na ñoo xam ne ni jant def la ñuy def. am na ñoo xam ne ñi weer lay def ñi weer lañuy ñuy def El Hadj Ahmad Borom Njigéen mooy jantu jànqeen mooy fleur ba. mooy ndox ma mooy weeroo moo tax ma ne taxyaa bikum kulla ardin tanziluna biha mhm. ka annakum fi biqaai l ardi amtaaru wa tashtahi l aynu fiikum manzaran xasanan mhm. ka annakum fi uyuni nnaasi azhaaru mhm. wa nuurukum yahtadi saari li ru'yati ka annakum fi biqaai l ardi ab aqmaaru mhm. la aw xasa allahu rabaan min ziyaaratikum ka annakum fil xasa wal qalbu tazkaaru daa joxoon borom mooy jantu jànqeen mhm. mooy weer wa mooy ndox ma mooy fleur ba ndax moo fa njëkk a jibal baatu yàlla moo fa njëkk a jigal wasifa moo fa njëkk a jigal naasir xaq bil xaq kon kooku mooy góor gi mhm. waaye tabaarakallahu dinañ ci gën a kii ndax waxtu insha allah taala alxaaji muniru mi ngi doon mbokk yi waxtaan waa ngoog waxtu wi euh, xam nga moo ñu xoj te it maa ngi war a dalal alxaaji daam eh, tabaarkallaaw alxaaji Abdou Razak moom bàyyi la nga tàggatoo bu ko ma dalal alxaaji daam bi nga xam ni moo wax war a wax wàllu programme bi ak relation diggante mag ñeeg moom alxaaji fa tabaarakallaah ñun li ñu bëgg a tàggoo rek mooy que ni alaaji Ahmad Baro mii nga xamante ni moom moo xewle mm-hmm. ñu ngi ko tuddee maam moom alaaji Ahmad Baro dafa am lu li tubaab di wax similitude dafa am lu ñu niroo mm-hmm. ndax nee la alaaji Ahmad bi mu am fanweeri at ak yu tegal mm-hmm. ci la gàddaay ñëw Tëngéej imaam alaaji Ahmad Baro bi mu amee fanweeri at yu tegal ci la dem keer jàngi alaaji ahmad boro def na ci euh, tëngéej ñaar fukki at mhm. imaam alaaji ahmad boro def na keer ñaar fukki at macha ahmad boro sunu maam bi nga xamante bii ni def nañ ko imaam raati bu Thiès boobu ci bu mu amee 60 ans yu tegal la mhm. imaam alaaji ahmad boro mii bi mu ñibbisee la ko mag ñi wóolu ci 60 ans lañ ko def mu nekk imam raati bu Thiès kon su wootelee maamam war na ko wooteel mhm. li Thiès alaaji daam dina ko mottali wasalaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf njégin mbokk mi ngi noonu euh, incha allahu taala xam naa euh, waxtu wi moo ñu moo ñu xaj noonu njëttuñu waaye incha allahu taala dina gën a yaatu vie euh, xam naa fiil bi mi ngi sama ginnaaw man maa ko dagg de na waxal kii mu ñëw defal ko fi ngay waxee man pour bu waxtu wi jotee ni ma koy waxee pour ma arrêté mbokki mi ngi noonu alxaaji euh, maam Ahmed Baro Njegéen mi ngi noonu yàlla yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem ci darajey Seydina Mohamed bis ba suba lay doon incha allahu taala ku ñëw Cees euh, daa dégg mag ñi euh, borom xam-xamee fa ne ci ndigalu alxaaji As Njegéen tabarakallahu imam ratib nga xam ne moo koy organisé at mu jot waaye ci ndigalu xalifa bi alxaaji Muniiru Njegéen boo ñëwee Cees daa xam kanay góor góor yàlla googule daañu fa waxtaane yàlla waxtaane Seydina Mohamed waxtaane gaaw yàlla yi waaye itam waxtaane góor gu mag googule la Seydina Mohamed waxoon ni di waxtaane gaaw yàlla yi euh, foofa yàlla dafay wàcce ay yërmande yàlla dafay wàcce ay xéewal kon ñu ngi woo mboolem koo xam ni yaa ngi dëkk Thiès nekk Ndakaaru nekk ci biir réew mi euh, boo boo deful dara rek booy def dara sax nga loo bàyyi dem toog fa ñuy waxtaane gaalu gaaw yàlla yi nga sol ci leer yooyu le yendu ak ñoom dellusiwaat mais alxaaji Muniru euh, tabarakallahu defe naa waaye at mu jot at mu jot ci ngay gën a yëg hmm. lenn ci dund gi nga xam ni maam Ahmed Baro dund fekke woo jamono mais fekk nga jamono maam alxaaji lan nga gën lan moo la gën a marqué ci maam alxaaji Modou Ndiéguène mi nga xam ni góor gu barkeel gi moo ko mooy way juróom waaw xam nga si alxaaji Ahmed Ndiéguène dañuy wax ni mag dañuy wax ni mag ñi ku leen mhm. xam baayam dëgg moom la ko bàyyam tegoon rek ca la tegu mhm. ku ko xam ci li nga ko xam mooy sunna mhm. ci li nga ko xam mooy nangoo jaamu yàlla mhm. ci li nga ko xam mooy muñ ci li nga ko xam mooy matal kóllëre damay wax ni chaque jour ni benn aaya boo xamante ni moom laay def mu na ak moom damay wax ni Cheikh Xaaji Ahmad Jigéen radiyallahu taala anhu ginnaaw ndigali bàyyam yi waxuma ci xettal ak ci ndimbal waaye damay wax ni yàlla da ko aj ci ñooñu nga xamante ne allazina yuufuuna bi ahdillahi wala yanquduna almisaq mhm. mooy ñi nga xamante ni wólëree seen bàyyi waxantewun ak ñoom su may dee defal nangam su ma dee defal nangam su ma dee defal nangam la ko bàyyam tegoon ni ko wasiya ba yàqu ba defoon a gaayam yi mhm. nee na moom la alaaji Amat Baro defoon ak moom mhm. waaye mos caaju mu ne wallazina sabaru mhm. mooy ñi nga xamante ni dañuy muñ Seex Alaaji Ahmad Ndiéguène ku dund ay ay ay circonstances la mhm. ndax jamono ji bàyyam génne àdduna dafa fekk jamono naqari mu nekk ay mag yu tabaarakallaa bari xel bari xam-xam am fit tafaale wuñ ko mhm. loolu ku ko mën résister ba mën a taxawul kër gu toll nii xam nga ni yàlla am na lu mu la dénk kon alaaji ahmad njegéen boo bëggee xam alaaji ahmad baro njegéen faaw da ngay natt alaaji ahmad njegéen moomu nga xamante ni tabarakallahu góoru yàlla la moo doon nandal nee ci leeri yàlla yi moo leen doon dimbali moo leen doon defar ci yàlla ndax moom yàlla defalu na ko fa mu toog la toog waaye defal ko kasf xam nga kasf yombul kasfu mooy nit koo xamante ni day ñëw rek nga xam sëriñ bi gën a ndaw ci sëriñ yi sànq ma ni sëriñ yombul de sëriñ fii la yombe mhm. boo demee ca taayatu surub jàng nañ ko nee nañ niveau bi gën a tuuti rek wa yux biru bil xab la waqoxeha da ngay ñëw rek al asyaa jam jamo jaw shay la mhm. al asyaa u mbir yi da ngay ñëw rek mu informé ci lu bari mhm. laa jax man jigéen yàlla mayoon na ko loolu nit ñëw na ba taay mun la nangam nangam mu nekk comme na mu nekkee woon te loolu da koo benn ci Seydina Cheikh Ahmada Tidiane yi wa kam yu waafiq bi maa yura mutaabiqan li maa bii qad axbara comme na ko waykat ba wax barakallahu eh, mbokki mi yàlla yaa ngoog alxaaji Muniru yàlla xam-xam bi xaj daam nu ngi lay nuyu jigéen nu ngi lay ziyaara bu baax baax a baax lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel defoon nañ ko daaw fekk waat nañ ko ren yàlla nañ ko def déwén di kontaan bu baax ci sa jotaay ak ñun yow ci njabootu Alaaji Ahmad Baro nga bokk ndax Cees ku fa juddoo mm-hmm. yaroo fa màgg fa mm-hmm. am nga cër ca kër Alaaji Amat Ba rawatina nag ndax dañoo bokkandoo juddu bokkandoo yaru tabaarakallaahu kon boo ñu dalalee fii ci télévision bi mm-hmm. ci njabootu Alaaji Ahmad Baro mm-hmm. askan wi yëpp ñu ngi àndandoo di gërëm directeur rajo bi mm-hmm. directeur télévision bi tabaarakallaahu di Youssou Ndour ak euh, employé yi nga xamante ne ñu ngi fi liggéey yëpp yal na yàlla yokk ko yal na yàlla dolli barkeel ci barke yonent bi alayhi salaam bés bi incha allahu suba la programme bu suba alxaaji daam ak euh, relation bi dox diggante kër moom alxaaji Ahmed Baro radiyallahu anhu ak këru diine fi yi nekk fii fii waaw xam naa mhm. suba la bés bi incha allah mhm. suba mooy vingt neuf mhm. ci suba gi euh, imaam dafa joxe ndigal imaam as baro dafa joxe ndigal ni nañu ci def ay kaamil alquran yéene ko magam ja mhm. Serigne Moustapha Ndiéguène ndax daaw kenn umpalewul ne moo ubbi jotaay ba te ku ko waxoon ne ko ba mu koy ubbi bu déwénee doo ko fekkee du ko gëm mhm. yal na yàlla yërëm ko mhm. ak suñu benn maam bu ñuy wax Nogay Diop Cheikh Oumar tabaarakallahu mu maam Nogay ak itam koo xamante ne dafa bokkoon ci mbooloo mi doon ci yëngu doon sonn lool ñu di ko wax Amadou Ba mu nga dëkke jaxaaw tabaarakallahu daan ca sonn lool ak yéene waale ci nag mbooleem jullit boo xamante ne génn nga àdduna ci at mi ñu yéene waale la ci yoolu ñaan yooyu mhm. nga xamante ne incha allahu danañ ko xëy def mhm. ci suba gi mhm. euh, bu loolu passé it incha allah bu ñu dalalee gan ñi ba ñu xéewlu ci trois heures et demi trois heures et demi la imam wax ni bëgg na képp koo xamante ne yaa ngi ñëw ci tànt bi ndax lu weesu trois heures et demie ku yéex a ñëw doo toog ndax euh, toujours ak bu jot noonu lay demee. day teel a fees waa añi dana teel a pare incha allah incha dana teel a pare mhm. euh, midi et demi uneur heure incha allah dana fekk añ ya pare su ko defee bu ñu dalalee gan ñi nag waxtu trois heures et demie ci la waxtaan wi di door ki nga xam ne mooy jëkk def waxtaan ca jotaay ba mooy Serigne Cheikh Omar Ndiéguène mhm. di rakk ci sama doomu baay bi toogoon fii léegi di Serigne Cheikh euh, Abdou Razak Njegen moom tabaarakallahu moo topp ci moom di boroom xam-xam bu mag mooy ki nga xamante ne mooy war a def thème bu njëkk bi mu nekk euh, la mission des chefs religieux dans la propagation des des des, des recommandations divines ci lay def waxtaan incha allah ñaareelu thème bi ki nga xamante ne moo koy def mooy euh, euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye doomu oustaz Ndiasse mbay mm-hmm. mooy def ñaareelu thème bi waaw muy la méthode mm-hmm. du prophète Mohammed paix et salut sur lui en appel islamique moom lay def muy ñaaree lu ba mm-hmm. euh, mënoon naa ci détaillé lu xaw a bëri waaye pour ñu xam ne yaxanal temps bi tuuti loolu moom lañ daan def ñeenti at yi yëpp moom la ñuy def at mi ci teewaayu nag xalifa yi di suñu maam Abdoul Aziz Ndiéguène yal yàlla guddal fanam muy xalifa Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène mu ngi jaar de passage di ko ndokkeel ndax lii yëpp moom moo ko moom ndax baayam la koy defal te moo fa mujj di caatam ak Serigne Muniru Ndiéguène mi nga xamante ne mooy suñu baay di suñu kilifa fa tabarakallahu moom itam di mag ci imam As ndax ñoom ñaar ci ku mu bokkal ndey ñoom ñaar ñoo fi des sama baay moo nekkoon seen mag mm-hmm. ñu bokk ndey ak baay bu fi nekkoon tey muy nekk xalifa mm-hmm. Mm-hmm. yàlla dogal it fa tabarakallahu ak kilifay diine yu bari ñu ngi ciy séentuwaale sëriñ Abdul Aziz si al amin yàlla dogal na euh, ñu ngi ko ci séentu ndax ren yaakaar nañ bu baax ne dana ca teew ca jotaay ba euh, su ko defee kilifay diine yi nag lu tàmbalee Touba Canaba Njaasaan Euh, Kaolack yooyu yëpp ba sëriñ si nga xamante ne ñoo dëkk ci biir région bi muy sëriñ Saliou Touré ñoom ñëpp ak Touba tabarakallahu ñoom ñëpp ñu ngi leen di séentu ci jotaay bi euh, su ko defee nag bu ñu demee ba euh, waxtu 9 heures 10 heures ci guddi 11 heures léeg-léeg ci la jotaay ba daan tas fekk kilifa yëpp teew la ñu war a def yëpp ñu def ko imaam ne nag mu ngi ci woo mbooleem jullit boo xamante ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah di ko yëgal itam président de la république muy monsieur Macky Sall ak soxnaam soxna Mariam Faye ak gouvernement bi yëpp ak responsable politique yi nekk biir Thiès yëpp kilifa diine yeeg imam yi ulama yi ñi nga xamante ne imam moo nekk seen président moom ndax moom moo nekk président des imams et ulama bu région Thiès yëpp ñoom ñëpp nee na mu ngi leen ci woo bi ci des itam hmm. mooy relation am ak kilifa yi diine ki nga xamante ni moo ci jiitu mooy Seydi El Hadj Malick tabarakallahu xam naa ne xaju fi <laughs> euh, amun na ko ak Serigne Touba am na ko maam Abdoulaye Niass mhm. maam Serigne Thiénaba mhm. ñoom ñëpp amante nag ñoom ay alaqaat yoo xamante ne Seydina Limaamu relation yoo xamante ne yu sori la waaye tey dama ne woon naa dalal sama ñaari mboq ñu jiituma ci plateau bi. su ko defee man bu ma ñëwee rek. ma tëj ko résumé ko. ci fàttali nit ñi bés bi. ak programme bi waaye li nga xamante ni moo ci ëppoon solo ñoom dama leen a bàyyi ñu wax ko. macha allah waxtaan wa itam macha allah. rafet na euh, ubbil nga leen ko ci anam bu rafet. Mhm. waaye ñoom itam yeggale nañ ko fañ ko war a yeggale. kon yàlla na yàlla may ñu ñu teewe ko déwén ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mi ngi noonu alxaaji daam njegéen waxtu wee xat waxtu wee gàtt waaye waxtaani góoru yàlla yi mm-hmm. euh, ñeenti waxtu doyul alxaaji mu niir waxtu yu jot na mu bàyyi la nga tàggoo bismillah xanaa dellu di yàlla di gërëm yonent yàlla mu muhammad di ñaan sunu maam ju baax jooju yàlla na yàlla yokk leeram ak bépp góoru yàlla boo xam doon na ko liggéeyal tabarakallahu li ñuy wax rek yaa ayuha allazina amanu stajibu lillahi wa li rasuli ida daakum li ma yuxyikum wa alamu anna allaha yaxulu bayna al mar'i wa qalbi wa annahu li tuxcharun lii daal imam as di woote dundalaat ruux yi lay doon. Mm-hmm. dundalaat xol yi gën ñoo jegalaat yàlla gën ñoo jegalaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci woo ñëpp di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci réewu jullite asalaamaaleykum wa jërëjëf njegéen maam As alhaaji Daam tabarakallahu yow xam nga waxtaan ak yow mm-hmm. ak alhaaji Munir ak euh, Abdourazaq du doy du doy insha allahu taala waaye daañu am yeneen jotaay yoo xam insha allah allah ma bàyyi la tàggoo insha allah su ko defee mm-hmm. nii ko sëriñ Munir waxee rek loolu la mooy jotaay bi mooy ñu ngi ci woo jullit yëpp daayira isbul xaq wa naasiril xaq bil xaq mhm. bi nga xamante ne imam mooy responsable moral bi mhm, mhm. ci njiitalu président bi di alaaji Ablaye Gueye Ndiaye ak soxna Ndeye Ndiaye Cissé ak njabootu maam alaaji Ahmad Baro Njegéen yëpp njabootu maam alaaji Mouhamad Njegéen yëpp ñu ngi yëgale bés bi daal incha allah suba lay doon képp koo xamante ne yëg nga ko te joxuñu la carte itam nga jëggal ñu ko xam ni euh, carte matewul imam bëggoon na kenn ku nekk mu teew ci yow yëgal la ko ndax bari na ñoo xamante ne waroon naa dem ci ñoom jox leen carte waaye jàppandiwul ndax euh, xat-xatu jot jamono bi waaye fa tabarakallahu mu ngi koy yëgal ñëpp mm-hmm, mm-hmm. su ko defee man foofu laay tëjee sama kàddu mm-hmm. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu alhaaji daam mbokki mi ngi noonu bés baa ngoog incha allahu taala suba lay doon ci samedi le 29 ca Thiès kër moom alxaaji Moodu Njëgeen radiallahu anhu mi ngi noonu muy journée boo xam ne ñu ngi koy defal moom alxaaji Ahmed Baro Njëgeen sëriñ as imam al imam jiite ko ci ndigalu xalifa bi alxaaji Muniiru njegeen ñaanal ko yàlla na ko yàlla may mu yàgg koo teewe at yu baree baree baree bare yàgg koo def moom alxaaji as ci daraje yi si jib dinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dig daje lañ leen di jox incha Euh, aljuma jii di ñëw waaye mbokki mi ngi noonu waa amokat xam ngeen ni wax naa la ko léegi soxna Ndeye Fatou Mbaye bisam bu mag boobule ànd ak koog waa daayira ba ci ndigalu xalifa bi Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum waaye ci ndigalu Serigne Maodo Sy Serigne Mbaye Mansour Serigne Mansour bu Cheikhul Hadji Abdoul Aziz Dabakh moo fay teew suba lay doon ci amokat incha allahu taala in tey jii mooy gàmmu waa euh, waa waa ja hmm, sama dëkk bi sama dëkk bi waa tubaab jalaaw ñoom itam tey ci guddi la incha allahu taala waaye itam waa Milan soxna euh, Yaya Dia seen boobu boobule ñoom itam seen gàmm suba euh, dimanche lay doon di la 30 incha allahu taala dimanche jooju maa ngi leen di jox dig daje ca Milan incha allahu taala ñu ngi leen di ñaaral mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog télévision Futurs Médias yal na yàlla yokk leen dëgëral sama mbokk yi nekk bitim réew ñu nekk Italie maa ngi leen di invité le 30 ca Milan incha allahu taala wasalaamualeykum Vieux Diouf moo nekkoon ci technique bi ñaan la ko yàlla yàlla na yàlla defal ko jàmm ci darajay Seydina Muhammad wasalaamualeykum allahumma tub alayna